koy doxalee at mi del see dañu ñaan yàlla at mu nekk muy gën a kowe rek yàlla mi nga xam ne tax ñu di ko def mën na ko yàlla ko yàlla defal kon bisimilah ñu teewlu auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين على أبر ساما خرنا ودور ما تلنو إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم من نهينا وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا مسائل خاصة وإلى أرواح وإلى أرواح الحاج إبراهيم جا وإلى أرواح الحاج سرين جا وإلى أرواح سرين جيل بكي wa ila arwaayi sëriñ jibril sow wa ila arwaayi alhaaji ibrahima sow jaar wa ila arwaayi alhaaji mbàkke jenn wa ila arwaayi sëriñ cheikh jenn wa ila arwaayi alhaaji soxna sow wa ila arwaayi dóomar sow wa ila arwaayi alhaaji usmaan sow wa ila arwaayi sëriñ siidi sow wa ila arwaayi soxna rokkay sow wa ila arwaayi ngoone sow wa ila arwaayi jokob sow wa ila arwaayi alhaaji faatu naar sow soxna naar sow wa ilaa arwaayi soxna binte gajaga wa ilaa arwaayi soxna faati bal bal bali mba gajaga wa ilaa arwaayi sëriñ mbay sow wa ilaa arwaayi jamil muminin wal muminaat wal muslimina wal muslimaat lahyaayi min malambaat ajmahiina amatan wa ilaa jami asaaba xayraati min al muminin wal muminaat allahumma unsur man nasara diin waxsul man xasal muslimin amin allahumma unsur man nasara diin waxsul man xasal muslimin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 ni jaay Seydi bu jël sallallahu alayhi wa sallam jàngaleen Fatiha naa sa saq yéen da ngeen jëf waay wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi axyaari wa sallama tasliman kasiran allahuma salli ala sayidina muhammadin tiibul qulub wa sifaul abdani ودياء الأرواح وطاهر البدن من سدة الألم والأيوب يا ربي أشفي شفاعة كاملة لا شقوة بعدها بحق حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما tuman alo bihi lhuqadu wa tuman faari bihi kurabun wa tuxda bihi lawaasi wa husnul xawaatimi allahuma salli ala sayidina muhammadin salatan tuxda lana biha awaahiji wa tutahiruna biha min jamii sayiat wa tarfauna biha darajat wa tuballiguna biha afsal xayaati min jamii lxayrati min jamii lxayrati fi lxayati dunia wa bada almamat subhana rabbika rabbi izati ama yasifun wa salaamun fi dunia wa salaamun fi laxirati wa salaamun alayna wa salaamun alaykum wa salaamun ala ibadiyallahi almuxlasin wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bi nu sante sunu borom wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bisu tedd bii nga xam ne yàgg nañ ko seq di bisu fàttaliku di bisu ñaan di bisu sant ñaan su borom lépp lu ci fi wàcc ci alquraanu karim jàng ko ci xasaayid yàlla suñu borom nangu lépp te ful ko àggale ko ci roox yi mag ñu baax ñooñ ci fàttali ko alaaj Ibrahima ja alaaj Sëriñ ja alaaj njàpp sow yàlla jotale ko ci ñoom dolli seeni yërmande seeni njéggal seeni xéewal ñi fi des di ko dundalit yàlla dëgëra leen kàtt na leen bañ yàgg ko taxawee te suñu nangu lépp dañ ci defal ay ndam nuyu njabootu El Hadj Birame Diack yëpp teg nuyu bi ci loxol sëñ Abdul Xaadir Dia mu àgg ci bokki njaay yëpp waaye nuyu itam euh, njaboot alaaj njàpp teg ci loxol Ousmane mag njaboot yëpp daal ci sàmm tàmbale ci sàmba ba ci ki ci mujj euh, niñ ko baaxa defe nag at mu jot ñu tànn benn tomb boo xam ne jàpp ne tomb bu yitteel la ñu waxtaane ku ñu mën caa jël ay bind ren ñu tànn al amalu fi lislaami wa fi taalimi liggéey liggéey ban wàccuwaay la ci biir lislaam ak ci njàngalem cheikhul xadim ñu bëgg tënk ci ñeenti tomb bu njëkk bi ñu xamle liggéey wàccuwaayam ci lislaam ak solo si mu am ahamiya bi solos liggéey ak wàccuwaay ci lislaam ñaari tomb ñu xamle ay tegginam ndax lislaam lu mu doon da ca jàngale teggin teggiini liggéey nag ana yam la ñetteel ñu xamle ci Sëriñ nan la wootee ak ñeneen ñi ci dégginu liggéey dégginu Sëriñ Tuubaa moom fi mu teg fi mu teg liggéey ak ni mu ko jàppee ak ne ko ñeneen jàppee wóote gi ci am ci diggante bi bi ko ñenteel nag tey mujj ci mooy yan junju walla yan joxoñ la yoonu murid joxoñ ci yoo xam ne buñ ca jaaree dana musal ci jafe-jafe économie yu ak seegut kon ñeenti tomb yi incha ci lañ bëgg a tënk waxtaan wi xam nañ ne lislaam diina lu bu ju ñaari yëf muy al ibaadatu wala amalu muy jaamu yàlla ak liggéey jaamu yàlla mooy yewenal dundug àllaaxira waaye liggéey nag mooy yewenal dundug àdduna àdduna dafa deme ni ab tool àllaaxira mel ni kër kër nag lay tax nga man faa toog la la fay tax mën a toog ca tool ya lay jóge kon àddina la fàggoo mooy tool bi mooy tax su demee ca kër gi am nañ fa mën a dunde man faa toog muy ëllëg sun boobu nee na wabtaxi fi ma aateka laahu daar laaxira wala tansa nasiibaka mina dunya li la yàlla jox ci ay moye yépp jox la ko cim xel ci kàttan ci mooy àdduna yépp nang ci fàggul sa ëllëg lu tax nga mën faa toog loo fa mën nekk waaye bul fàtte sa cëru àdduna ci àdduna ci ndénkaaneel yàlla lu mu dénk doomu war ko sàmm war a génne li fi nekk ci lu ñu war a jariñoo jariñoo ko kon dal alaaxira jaamu yàlla lañ koy fàggule waaye àdduna nag liggéey lañ koy fàggule kon jullit bi faaw day boole ñaar diggante wakkiirlu ak sabablu benn mu ñu ci dem bàyyi moroomam sabablu nag wala wakkiirlu dàqonte wut sabablu ndax dañu jaawale ñaari baat muy attawakkulu ak attawaakulu bokkuñu tawakkulu Sëñ Tuubaa jàngal nañu ko mooy gëm ne yàlla rek kay maye da def la nga man dangay ngay kër-këri liggéey te gën na liggéey mayut yàllaay maye loolu mooy tawakkul da ngay fàggu ba noppi nag bàyyee lépp ci loxol yàlla tawakkul nag mooy yaccaaral toogee na gannaaw yàllaay maye naa toog xaar yàlla loolu yaccaaral la baaxut Sëñ Tuubaa wax na ne wa alam bi anna al kasba la yunaafi tawakkulan laa taku daa itlaafi xasbuka min an laa tara mujuree risqika siwa rabbil wara fatar ko kasbin liddi at tawakkuli ma iltifaatin fi'lu xumrin injali nee na na nga xam ne fàggu muy kër-kër yi nangoo liggéey teewu tawakkirlu teewu tawakkirlu ne doon sëkk ci déggin wakkirlu ne mooy rek euh, gis ne kenn mayul ku ma yàlla dara mayul lu yàlla liggéey bi sabab la waaye mayiwut yàllaay maye gëm-gëm boobu mooy wakiirlu neen bàyyee fàggu nag jéemoo dara ngir nee da ngay wakiirlu moo tax sa ñi liggéey ba am di leen ñee ca lañ am ak di seentu sarax yu bàyyi ko ci wala may gu bàyyi ko ci ñoom suñu maa neen foo ko fi gis rek yëfi dox a ngoog yëfi dox la kon fawu nga lëkkale diggante charia ak xaqiqa yonent bi saa sallam ne woon na at tawakkulu xaali wal iktisaabu sunnati faman raxiba an sunnati falaysa minni wakiilu muy bàyyee sama lépp yàlla may sama mbir waaye fàggu kër këri liggéey mooy sama sunna te ku siif sama sunna bokkoo ci man lan nag mooy àtteeb liggéey ba àtteem ci diine mooy lan mooy àtteem mooy wujub mooy warugal la mooy farata la ni julli dooni farata koor dooni farata noonu la liggéey dooni farata kon caagin dalee neex nga def mu neex a bàyyi waaye farataal ci ab julit Sëñ wax na ko wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri wahami Sëñ Tuubaa nee na fàggu nangoo liggéey farataal ci ab julit farataal ci ab julit te neen ci lu amul benn sikk sàkkan bi xayri wahami ci lu gën def la mooy lu wér la ci ne farata la kasbul kon fardu aynin la fardu aynin mooy farata kenn ku nekk dafa ber di farata ci yow kenn ku nekk faratal ci yow nga liggéey car la nga mën liggéey ndax liggéey dañoo wute dañ ci ñëw gis nañ ñi gën ci ñi gën ci noonu muy yàlla mboolem daraja yi muy joxe daraja nu wutu moo ci gën a kawe te yonent yépp dañoo amoon métier daal liggéey yonent yépp li ñu màgg-màgg te dara yonent moo gën a rëy dara ju mën a doon te ñoom ñëpp amoon métier daal liggéey ku ci mel daawuda alayhi saa sa nee na maa akala ahadun taaman xattu xayran min an yakul min amali yadihi wa inna nabiyallahi daawuda alayhi salaam kaana yakul saa sa nee nit lekkul lu gën a lew ci moom gën ëpp aw yu ci moom lu mu liggéey ci loxoom ndax yonte yàlla daawud alayhi salaam day moom daa liggéey ci daa lekk lu mu liggéey ci loxoom yonte yàlla daawud ab tëgg la te yonent la liggéey na kon mooy bépp effort boo xam nit mi ngi koy def di ci yëngutu ngir mën a am lu mën a jàpp ba ak dundam addunaam mën a man man man man ma man a def mën a am taxaqu waaye itam mën a itam maslaaj nit ñi leen dimbale seen kemtaay kattanam ci ñam war a dimbale bépp effort bu mën a doon tam dagan rek ci liggéey la bokk lislaam nag digle bu baax a baax ñu dox jëm ci liggéey tasaara ci kaw suuf si fag wërsëgu yàlla fantashiru fil ardi min fadlillah la suñu doon ci kaw suuf te sàkku wërsëgu yàlla mooy liggéey islaam kon dafa jox xiima bu baax dafa yëkkati darajay liggéey waaye noonu la ŋàññ nag ci toog yaacaare jéemu dara aka sukkandiku ci ñeneen di séentu ay sarax walla ak may wala le lu demee noonu lu bàyyi ko ci keneen jëm si ci yow bëgg a teg am amum ci kaw tàllal loxo rek ak wëreelu loolu du màndargam jullit ab jullit du tuur ndoxum xar kanamam ci kanamu moroom jullitam lu dul nag dafa am ngànt moo saa yéen saasam moytandiku lool eh, lu mel noonu ci xadis boo xam ne Abdullah ibn Omar moo ko solo na maa yasalu rajulu yasalu nas xata yati yowm alqiyamati wala yas fii wa ci musadu laxam nit du dañ di tàllal loxoom di sàkku ndimbalaka yu ni mel ba bis penc buy dekk du dekk waale yàpp xar kanam ndax tolloon ndox ma kan xar ci tàllal am na xadis bu nga xam ne itam nit ki dem ca àll ba taxan mat yanu ko ñëw jaay moo gën ci moom muy tàllal loxo moo xam jox nañ ko moo xam joxuñu ko kon lépp day wone kon wàcce waay bi liggéey am ci lislaam ak ni mu ko jàngale lislaam it joxe ay misaal yu leer nañ ci xamle solos liggéey ak yëkkatiku dara jaam ci ne anbiyaaw yi nee naa léegi ñoo gën ci mboolem bindeef yi te ñoom ñëpp dañoo amul mbétti ñëpp dañ daan liggéey ndax du bàkkaar du it luy wàcce daraja wala ma wàcce ma xam kenn liggéey taxul sa daraja wàcc taxul nga def lu bon wala sa ñàkk ko def sa xëy moo la yóbbu ci ci def lu bon ne la yent yàlla Daawuda alayhi salaam yonent la te ab tëgg la woon métiem tëgg da liggéey ki gën ñëpp di sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy sangub seexul xadim jaar na ci dara liggéey jaar na ci sàmm daana sàmmal waa maag seen jur ñi di ko fay jaar ci mbéccam commerce gannaaw moom bi gën ñëpp nga xam ne loolu yàlla bind moo tax moom mooy mooy liggéey kon mooy tekk kon liggéey kon jëmbut kenn jëmut kenn laaj nañ ko xadis waan rafi amul moo ko solo laaj yoon saas ne ko ayul kas bi atyab mboolem xeeti fàgg yi ban moo ci gën a teey ban moo ci gën a dagan mu ne amalul rajuli bi yadihi wa kullu bay'in mabrur mooy lépp nit ki lox liggéey ci loxom tam dagan rek ak mépp njaay moo xam ne mu baax la njaay mu baax nag ñu waxee mooy njaay moo xam ne tappali amu ca ay naxe amu ca takk eh, takk biir nit ñi niwu ca nga dugale ci lenn dal lu ca bokkut woor bokku ca ger bokku ca rax ca lu ca bokkut bokku ca njaay moo xam ne lépp dafa ko sell ngir jëm yàlla loolu mooy bay on mabruur mooy njaay mu baax lislaam it dafay sàmmal liggéeykat bi xàqam ca war a jot ci lan war a am saa bu jotee Abdoulaye ibn Abdoulaye ibn Omar solo na wax ne xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ontul ajir ajir oo xam ki nga liggéeyloo mu liggéey bàggal balaa ko ñaqam fenn danga ko fay la ngeen waxante woon bokk na li ko tere am solo liggéey ak nekk nekk daawura mooy loo xam lu mënta ñàkk la li Anas ibn Malik solo jële ci yëndu saa sama wax ne in qaamati saa'atu wa bi yadi ahadikum bi fi in istata'a an laa taquma hatta yaghrisaha falyaf'al su fekkoon àddina gi tukki ñu ne ñu ne fir ñi kat àddina gi tukki laataa muy ak si jaw soo amoon njëmbat goo war a jëmbat nanga ko gaaw jëmbat balaa ak si jaw balaa dégg ak si jaw xam nga loolu yaakaaru ca dara waaye liggéey am solo bu am solo nga xam doonte xam nga ne doo ko fekkee wala doon njariñ teewut defal la nga war a def borom subhaanahu wa taala wax ne wala si ja'ala lakum l-arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur suñu ba neen na ngeen dox ci kaw suuf si fàggu liggéey ngir mën a lekk wërsëg wërsëgu suñu borom ngeen ngeen fàggu ko di ko jëfandikoo waaye na ngeen ca bàyyi xel na rek ba ilayhi nushur ji ab xupp la na leen woon yéen ñëpp ci man ngeen di si kon maa ngi lay bàyyi bàyyi loo xel ci li ngay liggéey nga fexe ba sàmmante jaay la ci sàmsant ba doo ci lekk lu lu xaraam wala dagan wala wala yoo xam ne yee baaxut yëpp nga moytu ko ca moo tax mu tëj ba mu ne ne ba liggéeyee sàkkoo sëg mu tekkee nag yéen ñëpp sama kanam ngeen di delsi waat ngir bàyyi loola xel ba la ngay fàggu doon lu dagan doon lu lew lislaam soññee baax ci liggéeyu projet walla gépp fàggu rekk ci ay majaalaat yu bari te wute bokk ñu majaalaat yooyu bi ci gën a barkeel gën ci sol solo mooy mooy mooy alfiraaxa mooy bay bay eh, moo xam ne xeetu mbay mu mën a doon njëmbat jëmbat ay garab mbay mi gën a siiw fi ci Sénégal mooy bay dugub ak bay gerte ak ñebe gi ni mel ay eh, génn daal li nga xam sunu borom def na ndax suuf dafa barkee ci la sunu borom denc lépp suuf moo leen nit di woom loo mi ngi ci suuf bu dee mbay ci suuf lañ koy defee jamaa ci suuf lañ koy gase or ci suuf lañ koy gase pétrole ci suuf la nekk gaz ci suuf la nekk mboolem ya ñuy jariñoo yépp sunu borom ci suuf la ko denc moo tax mu dégg doomu aadama fexe nag ne ko nag na nga kër kër nag la koy génne nag ba ñoo ko nag léegi ci sa loxo laa ko bàyyi kon dalaa digal nga liggéey nga kër kër na ko yëngu mbay nag nekk na lu barkeel lu bari yiw bokk na ci yiw yee li ana sunu solo wax ne yéen saa salaam nee na maa min muslimin yaxrisu xarsan aw yasraa zaraan fa yakul minhu tayrun aw insaanu aw bahima illa kaanat lahu bi sadaqa amul mel na mbay mu nit di bay mbay moomee picc lekk ca wala doomu aadama lekk ca wala bay ma lu may sumboon da ko defal loole muy yoolub sarax te sarax nag lu màgg darajal lool boo dellu ci masal yi nga Sëñ jàngale lu am lu lu am solo la lu mën a jariñ lool bis ci ëllëg waaye mën a fànq itam fii ci àdduna lu baree baree bari di fànq accident di fànq ak ñàkk di fànq lu baree bare bari ay musiba yu ñëw sax dana ko fànq waaye bokk lam lay jariñ ëllëg ndax mën naa dana gisal lool balaa siiw ëllëg bis penc bokk na ci majaalaat yooyu at tijaara muy commerce liggéey bu dagan waaye liggéey bu jege ak riba nag moo tax aay ba dafa sësale ñaar yi dafa sësale yàlla daganal ci yéen jaay waaye xaraamal na euh, riba kon sësale liñ jegee moo tax mu tudd mu tudd njaay tudd riba ca wet ga moom itam kon lislaam tëral ko ay bawaa bi charia yoo xam ne kon ki koy liggéey war naa sàmmanteeg yooyu moytu ndi ko riche li ñu tuddee riche muy jar dangay jaay lem sotti ja ndox ngir mu gën a bari da jaay leneen am loo ca rax ngir mu gën a bari wala soow doon sot ca ndox ngir mu gën a bari mbala yu mel noonu loolu ñu di riche dafa xaram daganut moytu ca riba moytu ca lépp loo xam ne cay indi ak neen wala ak yàq wala jar nit ki sun boom nee na bu leen lekk al nit ñi ci seen biir ci ak neen lu may dafa nekk ci am yaxantu moo xam ne yéen ñaan yéen ñëpp da ngeen a gërëm kiy jënd gërëm na kiy jaay gërëm na yéen ci àddi Saïd al Xudri yi mu wax ne attaajir yén saa sa neen attaajiru saduqu ma an nabiina wa siddiqina wa shuhada jaaykat bu dëggal commerçant bu dëggal ëllëg su dekkee yonent tey lay àndal ak siddiqoona ya shuhada muy yi gën a màgg ci ci bindee fi kon liggéey boo ne boo ko sellalee bokk ëllëg bu ñu lay dekkal njëggañ ci niñ la lay booleel kon war ngaa fexe ba kon loolee day tegtal kon lu mag la waaye war ngaa fexe ba sell ga gay gala ca may loola nga fexe ba mu am ca te kon liggéeyu industrie ci liggéey ci usine walla société wala bépp xeetu liggéey bu daggan rek ni ko sañ na caa yëngatu ngir fàggu su ko defee nag maa li kon lislaam kon dafa xool liggéey bëtub respe xool ko bëtub màggal màggal liggéey yëkkati xiimam waaye da koo takke ak tiranga dafa takke liggéey ak tiranga def ko mu nekk farata joo xam ne dañ ci bindal tiyaaba nit ki ni lay bindale farata ni lay bindale ay eh, aw yiw ci julleeg woor ak jaam yàlla yëpp kon na xam ne kon te da yén saas dafa ne al aabidu afdalu al aabidu fal aamilu al aabidu huwa afdalu inda llahi min al mutaabidi zahid zahid kii liggéey bor ak jaamu yàlla moo gënal yàlla ki féetoo jàmm yàlla képp ak ak dëddu àdduna te bañ liggéey kay liggéey moo gën moo gënal yàlla am na jamono yoon saa ñoo xam ne dañoo daje bi sa waxtaan nañu daal li muy def ci ak jàmm yàlla xeeb nanu ko dana war a yokk nekk na nekk seet lu mu féeti woo kenn ki ne man de façon yéene moom damay jaamu yàlla du ma samp kër du ma denc soxna keneen ki ne man de fasa yéen fasa yéen dootuma dog damay dëkkee war rek ba faaw ki ne fasa yéen moo tam dootuma nelaw guddi damay fanaan ne nal julli rek bu ko yéen saa sam yégee woo leen ñu ñëw fekk dañ ko dañ ko ko wax sax ne ko ñoom de xam naa ñu ñu baax lañ kenn ki moom moom daal koor rek lay dëkk dog mukk keneen ki ne moom julli julli rek lay fanaan du nelaw mukk keneen ki ne moom de di denc soxna sax moom day day fanaan féete jaamu yàlla rek mu ne waaw ku leen di dundal mu ne ñu ne ko xanaa diw mu ne diwa leen gën ndax ma ngay jaamu yàlla ba noppi nag fàggu ba man leen man leen dundal walla ñu ñëw mu ne leen man ndey damay woor ay bis di dog ay bés di julli ay waxtu di nelaw ay waxtu di denc ma kon ku siib sama sunna bokkoo ci man am na ko ma ñëw ci sëñ Tuubaa ne ko man day am naa jigéen ñi niñ doy waar ak niñ mel daal dama bëgg a far bañ a denc soxna rek mu ne ko soo ko defee dee gën ñëpp soo ko defee gën ñëpp mu dema dema dem ba yàgg mu des ne ko daal dama bëgg a far denc rek mu ne ko soo ko defee yam ak ñëpp mu denc mu ne dem dem xam naa lañ ci seen do am ko bëgg ko di ne ko dama ko bëgg a bàyyi mu ne ko soo ko soo ko defee yées ñëpp dafa ñetti daraja yi gën ñëpp yam ak ñëpp yees ñëpp ba ne dama féete jaam yàlla bañ a denc mu ne ko soo defee gën ñëpp damay denc mu ne ko soo defee yam ak ñëpp wàcc mu ne ko soo defee yees ñëpp kon la muy wane rek mooy kon nit ki kon faa wëtt wàccandi ko rek suñ borom bi mu diglee jaamu yàlla dafa wax ne na ngeen yàlla waaye su jeexee dem leen liggéey fii saa xuddayti salaatu fantasiyol fi lobbi bu jot bu jël aj bu jot dem leen ci jumaa joo julli ji waaye fu ngeen sëmmale fantasiyol fi lobbi wabtaxu min fadlillah su fi ngeen sëmmale rek del ca marché yaag ci atelier ya dem liggéey sàkku ji wasugu yàlla kon liggéey ci lisaan kon yoon la wuy yóbboo ci njëgalub yàlla ci yërmandeem ak ci tiraangam liggéeyam dafa am ay teggin lislaam jàngale yoo xam ne ab julit bu nekk war naa fexe ba takkaayoo ko juróom-ñetti teggin liggéey am na ko juróom-ñett bi ci njëkk mooy istihdaaru niyati mooy jiital yéene ci lépp ndax yéene ab jullit lépp lu muy jëf da cay jiital yéene mooy tax jëf ja wér soo doon julli te yéene woo julli ga baaxul soo jàppee te yéene woo njàpp moo baaxul soo Samba Fall te yéene woo càggaay la baaxut kon lislaam lu mu doon yéene la cay jiital su dee liggéey bu dagan dañu bëgg nga jiital ci yéene euh, su ko defee kon war naa fexe ba yemuy yéene rek buy liggéey nag ñeent yéene yi la cay yéene ba njëkk may fas naa yéene day lépp lu may liggéey day doon lu dagan ma ne bépp dërëm bu ñu ci sama loxo bi fas naa yéene mu doon dërëm bu lew fas naa yéene lekk leen loo xam ne leen loo xam ne lu daganul la wala lu lewut la boobu lay njëkk yéene ñaareel yéen yi mooy fas naa yéene lépp lu ma ci yàlla sant ci li may fàgg lu ma ci jële bu ca asaka waree nag génn jox ko ña ko moom yéene it ne lii ma liggéey kat defuma ko ngir lan waaye dama ko def ngir am lu ma jàpp ba mën a jaamu yàlla nga xam ne nga ci yéene dama bëgg am lu ma jàpp ba a mën a jaamu yàlla nga yéene loola ba ko ñeente ma fasaa ci yéene dimbale jullit ñi ngir yàlla dimbale jullit ñi bokkut ak asaka da nga yéene asaka ba noppi nag dimbalee te yàlla tax asaka lu néew la luy génn ci alal mooy li néew ci li génn ci alal loolu shaayir ba tënkoon ci wenn bayit talabu xillin wa adaau mulzami awnun ala taati nafu muslimin talabu xillin wa adaau mulzami awnun ala taati yooyu la tënk ci bayit woowu talabu xillin fexe ba la ngay sàkk doon lew wa adaau mulzami mooy boole ci askawaree nga génn ko awnun ala taati mooy dimbandikoo ko ci topp yàlla nafa muslim mooy jariñ jullit ñi ba ko ñaareel ci teggi bi mooy di teel a dem ci sa liggéey mooy teel a xëy ci sa liggéey dangaa bokk ci ab société ñu sat la deel xëy huit heures di wàcc midi di gont di wàcc six ngay toog ba neuf heures wala dix heures ngay wala wala wala ngay toog ngay toog ba midi wala une heure ngay door a ngay door a xëy wala sax léeg-léeg doo xëy te ki nga ko jëflante saa weer dee mu fayal sa sa sa fayal ba mat yaa ngi lekk lekk alal ju moomut li fekk mi ngi matal sa sa salaire waxtu weer jox la ba ma sëkk yow liggéey ba na ma sëkk li fekk ngàntamut teel a xëy ci sa liggéey ab julit yoon saa sa ñaan na ñaan goo xam ne ñi teel a xëy dong ko moom allahum bari li bari li umbati fii bu kooriha yow suñu borom yàlla na nga yéeréen ñii teel ci sama xeet kon ko teel doxee boo ko ci ñaan boobu yow suñu borom ñii teel a xëy ci sama xeet yàlla na nga baleen baat yàlla la ñuy liggéey kon ab jullit de teel a xëy ceeb ca liggéey ceeb ab liggéeyam bul yeex itam liggéey suba nga liggéey tey nga di koy liggéey suba li nga war def tey def ko tey ëllëg lay taxaw taxaw dañuy wax ci xikma ne laa tu axira amalal yowma ilal xadi loo def tey bu ko nekk suba Tirmisi moo solo xadis boobu ak Ibnu Maaja ba ko ñetteel mooy al jaddu fil amal mooy nga farlu ci liggéey bi jox ko yitte jam laaj yëpp ak jullit bi dem ci liggéeyam dafay ànd ak farlu dafay ànd ak cawarte bañ a yaxantalu bañ a tayal fa man jadda wajada ko farlu rek am la muy wut wa man ku jiit faw da nga waaye tayal baaxut tayal waaye faaw nga nangoo muñ it nag muñ eh, simba jaxat newoon na fa ñuy ruuja tool ak fa ñuy tib besax la digg muñ ci diggante bi raw na xel raw na xel daf naa fa ñuy ruuje tool ak fa ñuy tibbe sax sore na de faaw nga muñ faaw nga dem jànkoon dem naaj wi e, ci ruuj lokkat hmm? faw bay bayaat buddat so dee ba ak ak ci góob mbojj soq wal tay door a mën tibb seex kon faaw nga jaar foofu faafu faafu ma noppi kon fa bala ngaa jëriñ kon faaw nga sonn njëkk mooy farlu ga ànd muñ kon mooy bokk na ca langa nga xam war nga ko caa shaar ba newoon na bi xadril kaddi tuktasabul maali fa man talabal ula sahiral layaali wa man talabal min gayri kaddin ada an ula fi talabil muxaali nee na kemt lay na nga sonne rek noonu ngay fàggoo ak kawe fa yàlla ten koy koy sàkku kawe faaw mu muy jéema muñ nelaw guddi nee na kuy sàkku kawe nag te nanguwut sonn mi nga sànq sànq dundam ci sàkk loo xam ne lu mu ntaam la sàkk loo xam ne jomb la ba ko ñeenteel ci ci teggini liggéey mooy nga am compétence compétence moom la wolof di wax xereñe mooy faaw nga xereñe li mooy liggéey na nga doon na doon loo xam léegi nga far am ministère koo xam ne la nga ko la nga ko fal ministère xamu ci dara kon ki nga jox ministère bi la la la la la nga ko jox na doon lu mu xam na am compétence compétence ak ak expérience bokkuñu expérience moom yàgg mooy rek moo koy maye compétence mooy loo xam ne da nga koy jàng ñu defal la ci formation ba nga am diplôme bi am nga ci compétence waaye nga def itam nga nga nga jaar ca jaar ca xam nuñ ko tuddeeti jaar ca euh, ba am ca diir su ko defee ne ba ca ngay doon am compétence ci loolu salaason nee na euh, inna laa yuhibbu isaa amala ahadukum amalan an yutqinahu yàlla bëgg na lool kuy liggéey ab liggéey na ci am compétence mooy na ko xereñe bay xaqi moo solo xadis boobu yéen saa sam del waxaat ne inna allaha katabal ihsan ala kulli shay fa ida xataltum fa axsinu alxitlata wa ida dabaxtum fa axsinu dabxa wal yaxidda ahadukum shufratahu fal yarxida bihatahu rawahu muslim yàlla dafa farataal ak rafetal ci mbir mën doon compétence mooy tax liggéey ba rafet mu su ngeen di rey sax na ngeen na ngeen rafetal rey yéen su ngeen di rendi na ngeen rafetal rendiin wax te mooy na ñawal paaka ba te gaawal loxoom mën a noppal la muy rendi ba ko juróomeel muy at tawaado juróomeelu teggin bi mooy at tawaado mooy wàcce sa bopp bul am liggéey bu kawe bëgg a xeeb borom liggéey bu suufe directeur des sociétés nga wala ministre nga wala loo mën a doon tax na nga xeeb borom saretu mbaam ba mooy lam yoon liggéey la kon yor liggéey bu kay bu tax nga xeeb borom liggéey soo mooy bul yëkk sa bopp daal jàpp ne yaa ki nga ëpp ëpp daraja liggéey yaa ko gën a kawe déedéet même say emploi yi nga xam ne yaa leen seetu sax bul jàpp ne da ngaa bëgg a toog ci seen kaw yi bopp wala yaa leen gën déedéet yàlla dalaa jiital rek yooyu yéen saa sam nee ku am lu toll ni fépp suuf ci xolam ci ci rëy du tàbbi aljanna lu toll ni fépp suuf ci rëy nee na ku ko am ci sa xol doo tàbbi aljanna Abu Daawud ak Tirmisi ku ci solo xadis bi ak Ahmad ku solo na xadis boobu kon ki jiite ki seef seef bi na wàcce boppam ba tolloog ñi mu seefu ñamu seefu it nañuy dimbalante kaleen seefu mooy nañ ko déggal nañ ko respecté jox ko war ma loolu lépp na am nañ jënd am nañ ci royteef lu màgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi sunu doon digal nenu ngeen xool ko taroy ko ma ne daa dimbalante ak waa këram ba ci ay soxnaam sax su doon jamono ji mën naa ne bu jëmee marché bu ñëw bu bokk ci leen dépasse la jën leen xolli le sob ak yu mel noonu mooy daa leen bàyyee liggéey kër gi ñum doom waaye daa dem di ànd di ca ànd ak ñoom te moo gën yëpp bu àndee saxaaba yi itam daawul nangu ñuy liggéey mu toog ànd bis ñu amu gàtt am ko ne maa koy rendi keneen ne maa koy fees keneen ne maa koy togg moom mu ne may wuti matt mi ñu koy togg ñu ne ko déedéet yow sang bi koy toggal mu ne déedéet yàlla gërëmul ku ñuy liggéeyal mu toog te li ngeen bëgg laa bëgg kon gis ne kon doy na sëkk kon royukaay moom ci wàllu yëngutu ak liggéey juróom benneelu teggin bu mooy bul jox sa yitte jépp liggéey boo ndox sa diggante jàmm yàlla am na ñoo xam ne dañuy xëy na ci seen liggéey ba ngoon bu ñu wàccee ba sangu nag doo tàmbalee fay doo la fay tisbaar takkusaan timis gee déedéet noonu julli nee naa nangul am guro julli détail rek détail bu nekk daam waxtu soxtam jotee def ko daggal looy def def ko ba noppi looy delloo ci sa liggéey gannaaw jëmmi liggéey ci boppam ngir fàggu man maanaam loo jàpp ba doo tàll kenn loxo moom ci boppam jaamu yàlla la moom ci boppam comme comme jaamu yàlla yëpp kon nag bu ndox sa diggante ak jaamu yàlla jële yàlla sant nga xam ne faratal joo xam ne dafa am waxtu waxtu mu yeesu mu yeesu kon sàmmanteeg waxtu yooyu waxtu jotee nga dagg ko def ko bokk na ci teggin liggéey juróom-ñaareelu teggin bi mooy al bu'du anil xara anil amalil xaraam mooy sori bépp liggéey bu dëggam liggéey bu xaraam njaayum sàngara wala carte mbaa mbaam xoox mbaa yi ko niru loolu dëggul ci ab jullit mu liggéey ca genn anam ci genn anam ak lépp loo xam ne rek boo ci dugalee mu xaraamal ko nga moytu ko loolu ci teggin yi la bokk juróom-ñetteel bi mooy al amaana mooy nga doon ko wóor ab jullit dafa nekk amiin fi amalihi dafa nekk ku wóor ci ab liggéeyam ku wóor nag mooy ko xam ne du jar du wor du ger du nangu ko ko ger ci ab liggéeyam day sàmm it secret liggéey ba du génn di ko siiwal société bi ngay liggéey seen secret bu génn ci di ko di ko siiwal su ko defee borom liggéey war naa sàmm te ñi koy liggéeyal seen xàq bu ñu àgg ci waxtu ñu war a wàcc mooy la liggéey luñ continuer déedéet mbaa nga di ko liggéey leen lu bokkute liggéey ba ngeen seq ci misaal da nga ko jël ngir sëfoor ba nag boo ko defaale bëkk nekk déedéet kon liggéey ba ngeen seq na yem ca liggéey boobu rek waaye bu ko bu ci dool leen du ko lépp loo xam ne bu dee liggéey bu fi liggéey ci loo xam ne dafay ca dafay wàllu chimique la koy aar ba du ca loru ki yoon borom liggéey bi la war kon yëpp juróom-ñett yooyu mooy yi nga xam ne mooy juróom-ñetti teggin yi nga xam ne liggéey am na ko te ab jullit war a sàmmante moom ñëw nag ci li teqale déggiinu yoonu murit wane Sëñ Tuubaa mooy yoonu murit ak weneen yoon yi ci déggiinu liggéey ci aw gisin aku jàppin ñu njëkk xam ne ne yoonu murit ab yëngatu la ab xaraka la boo xam ne lépp la ko lal mooy bëgg jàmm ak di ko sàkku ci yéene ak ci wax ak ci jëf ak saxal ko dàkk di ab yëngatu waxtu nekk waaye yëngatu bépp nag du ngir bëgg nguur wala sàkku ko bàyyi ko niru waaye am njàngale la njàngale mu jëm ci ñépp ndax man nga ne rek mooy lislaam mooy lislaam islaam nag du luñ jagleel benn dëkk rek ni ki nasraniya du luñ jagleel genn jëm rek ni ki masixiya du luñ jagleel genn kuréel rek ni ki yahudiya nasraniya dafa sosoo ci dëkk bu tudd Nasira ñu far ko askan dëkk ba ne nasraniya lisaan du loola bu dee masixiya dafa sosoo ci yent yàlla masix ñu far ko ko tuddee ne diine masixiya bu dee yahudiya dafa sosoo ci xabila kuréel bu ñuy tuddee yahuda ñu far ko askan ne yahudiya lislaam du benn ci yooyu lislaam jegewut ab dëkk jegewut ab kuréel jegewut itam aw xeet la koy tegtal mooy li yéen saa sama waxoon ne bon istu ilal ahmari wal aswadi wal abyadi dañ maa yónni ci ñu xonq ñi ak ñu ñuul ñi ak ñu weex ñi kon mooy ci ñëpp lañ ko yónni kon diine ngir ñëpp la ak in huwa illa zikr lil alamin alxuraan kat dafa wàcc ngir ñépp bindeef yépp wa asnak illa illa rahmatan lil alamin lu yéen léegi léegi nekk yéen ma ne lil alamin al alamu mooy mboolem adduna sépp nit ñëpp wa ma asnak illa kaafatil nas bashiran wa nadira kaafatil nas mooy nit ñëpp kon njàngalem Sëñ Tuubaa dafa aju ci lislaam ci yaatu gi ngir ñëpp nga ne benn dëkk jagowu ndax Sëñ Tuubaa tuddi ko Tuubaa wiya jenn jëmm jegowu ko tuddewu ko xaadimiya wala ahmadiya du benn lu lu benn kuréel jago it muy muridiya waaye lislaam la woote ndax baatu murid la muy teg mooy ku bëgg yàlla rek kuy wut yàlla kon ku ne ca ba mu woote ñëpp la woo yaa ahla barri yaa ahla baxri moo jooli barri baxri saxaay yéen wa yéen mboolem waa jéeri ak jéeri ju mën a doon yéen mboolem waa géej ak géej ju mën a doon kon ñëpp la woo laakin unaadi kullal bilaadi mooy réew réew yëpp laa woo fii ko unaadi kullal bilaadi kon ab wooteem kon ci ñëpp la jëm moo tax ak dundam ak liggéeyam du jeex bu mukk diiru jamono istimraari yi la ndax la xaduntu bil xatti binaa amawti waxad rafaatu bil baqaay sawti kon woote Sëriñ Tuubaa dafay dëpp ak jamono yépp ak barab yépp ak giir yépp su ñëwee nag ci li ci tomb mujj bi ndax daa mel tàkkusaan mi ngi jage muy nag li yoonu murid indil société ci li mu ci jafe-jafe yi ak ci biiram lay feeñaale nag li Sëriñ Tuubaa wuuteeg ñeneen ci gisinu liggéey ba ci njëkk mooy liggéey liggéey ci boppam ndax principe wooteeb Sëriñ Tuubaa malik sumboon ne ko rabbi asxaabaka bil himmati na nga sa mbooloo ci yitte yitte ju kawe yitte nag dafay may murid mu am jubluwaay yu kawe ci mën a amal ay effort yu mag yu bari ngir mën am li mu bëgg àddina ak alaaxira te la mu bëgg la ci jiit na gën caa muy muy ngërëmal yàlla wa ridwaanu minallaahi akbar am murid su amee yitte dafay dafay namm ngërëmal yàlla da koy wut dafay bëgg àgg ci yàlla day bokk bokk ci arrijaalu saabiquun ña jiitu ki bëgg lool na kon faaw kon yitteem nekk yitte ju yu mag bokk na yitte ju day bëgg bokk ci ñi gën ci nit ñi maanaam kuréel bu mu bokk day bëgg bokk ci ñi ci gën àdduna ak alaxira ci mbir yépp su yonente bi salaa salaam waxee ne xayrukum man taallama alqurana wa allama ci am yitte day bëgg a bokk ci jàngalekat alxuraan ngir gën ci nit ñi ndax nee nag ki gën ci nit ñi mooy ki jàng alxuraan di ko jàngalewaat kon murid bu am yitte day bëgg a bokk ci kuréel googu ngir bëgg a bokk ci jigéen su yitte bi waxee ne alxalqa ayaalullaa wa ahabum illa anfaum li iyaali bindeef yëpp njabootu suñu borom lañ ki ci gënal yàlla nag mooy ki ëpp ki ëppal njariñ njabootam ji ki ëppal njariñ nit ñi kon murid day bëgg a bokk ci ñi ëppal njariñ ci nit ñi ngir bëgg a bokk ci ñu gën suy wax ne sayyidul xawmi xaadimuhum mbooloo mu nekk ka ca gën mooy kay seenu sang mooy kan nga wàcc di leen liggéeyal bi su amee yitte kon bokk bëgg a bokk ci ñee leen di liggéeyal bokk ñi ci gën a bëgg a ci ñi gën suy waxit ne al yadul ulya xayrun min al yadi sufla loxo bi féete kaw joxe moo gën loxo bi féete suuf di nangu kon murid bi bi am yitte day bëgg a doon ab joxekat ngir bëgg a bokk ci ñi gën sooy waxee ne xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahli ki gën ci yéen mooy ki ci gën ci soxnaam te man maa leen gën ci samay soxna kon murid day bëgg bokk ci ñi gën ci soxnaam ngir bëgg bokk ci ñi gën kon kuréel bu ma doon rek day tànn ña ca gën mu bokk ci loolu mooy loolu mooy loolu mooy kaw yitte ngir na gën bëgg nag kon lii kon faaw du noppalu kon dafay dafay dëkkee kër kër ak yëngatu dafa ndax dafa ma ñaari dund te genn gu nekk da ko bëgg a jox xàqam muy dund ko àdduna ak dund ko àllaaxira moo tax Sëñ di wax ne na nga jëfal àdduna kentu laayal li nga fi nar a sax te jëfal sa àllaaxira kentu laayal la nga fa nar a sax àdduna day jeex àllaaxira du jaax kon la ngay jëfal àllaaxira moo mooy mooy ëpp li ngay jëfal àdduna waa amal liti dunya bi ma takunu tankusu fiha ayuha alfatinu wa amal li oxra qadra ma tabqa gada fiha wa man xaalafa da laa xarrada mu de Sëñ Tuubaa soññ murid yépp ci jaamu yàlla ak liggéey Sëñ Tuubaa nee jaamu gi sax mooy liggéey bi jaamu gi mooy liggéey bi yeneen yi ca des yépp nag dafay dimbale dafay dimbale jaamu gi rek muy kër kër yi baag yëngatu ya ndax nit nag jaamu doo nga tax suñu boom bind ko te àdduna mooy war waay yu ñuy war ba mën a dem alaxira wañal dëban mi na nan mu ajjala jaalibatan li mi na nim mu ajjala moo tax nag liggéey moom suñ wax da cee wóoteeg yeneen nit yàlla yi jiitu woon ñoom dañ daaw ne seenu taalibe su demee ca géej gi napp wenn jën wax mën na ca añ reer ca doy sëkk na dem jaamu ji yàlla ñoom noonu dëddu àdduna gu ëpp nit yàlla njëkk noonu li na def dañoo xam murid bi su demee ci dex gi wala géej gi bu fa nappi wenn jën wax ne mën na ca añ reer ca doy na na dem jaamu ji yàlla sëñ damaa gisewu ko noonu moom moom daa gis ne nit ki dafa war a liggéey lu ëpp soxla sañ ba denc ngir waajal ëllëg ba projet li sam taxawee mu mën caa def ku soxla ndimbal bu agsee mu mën ko dimbale lu taxaw mu man ca dara kon wute nag ñoom ci seen liggéey moom dafay digle farlu ci liggéey ba am lu ëpp li nga soxla tey ba dencal ëllëg suñu tubaab loolu jàngale dafa wax ci eh, masalik ne bi muy wax ci xeeti alal ak yee ca dagan ak yee ca xaraam ba ca mujj gi ma ne axdu xalaaliha tafaaxuran xisaab wa axduhu takaasuran xadan iqaab wa axduhu li shahwatin xisaabu xadan waxabsun fii laa tattaabu nee na ki jël alal ki koy fàggu te jullu ji dara lu may puukaranteeg nit ñi rek ak ëpplanteeg ñoom ak nga bëgg ngir bëgg jublu ci lu may bari le rek nee na loolee kat xisaab jàgg képp la ko jural bis penc xisaab jàgg tamit rek ki koy fàggu itam tëjlu ci la may bànneexoo ko rek wala ngeen daal ak ñëpp am nañu àll dinaa ni ñëpp loolu képp la ci yéene ñenn ak tëj la koy julal ak xisaab ëllëg bis lañ ci tekki na wa axtuhu tiyaatan aw taatufa alal wara aw anhum wa taafufa li yaslamu minhu wa yaslama lahu diinun ki koy fàggu nag waaye ba mu koy fàggu lañ ca jublu mooy am lum jàpp ba du soxlaal kenn dara di tàllal loxo maa lañ ca jublu mooy ku ñëw te soxla ndimbal mën la dimbale maa lu jublu mooy am ba am lu bari denc ngir waaji ëllëg ba porosi lisaan bu taxaw mbaa ko aj mu dimbale neen lii nag lañ ko kon bu dee lii kon fàggul ngir loolu kon baatub ixtiyaat bi ñu ci tudd ixtiyaat mooy liggéey ba am so lu ëpp sol say denc waajal ëllëg kon mooy wane ne kon dafa jullu moom jullu jullu nit ki liggéey tuuti rek yam ca waaye na liggéey bu baax a baax a baax ba denc lu bari ngir lu tax man caa mën caa mën caa tàbbal loxo da daa wax ne it ma daaneel xam naa lii tañ julli li ci bëriwut waaye ma daaneel tom bi ñu julli door àggale ndax mel na waxtu jot na defe naa am déet wax ne dee leen jàng alquran tey julli tey jàng xasaay bi tey liggéey bu baax daal di wax ne su ma nee dee leen jàng alxuraan mooy tax suñuy lim ñooñ yàlla limaale la ca te lépp luy tax suñuy lim ñooñ yàlla limaale la ca loola mat nay def su ma nee dee leen julli mooy daa tax suñuy lim jullit ñi boole la ca te lépp luy tax suñuy lim jullit ñi boole la ca loola mat nay def su ma ne dee jàng xasaayid yi mooy tax suñuy lim sama ñooñ boole la ci te lépp luy tax suñuy lim sama ñooñ boole ci loola mën lay def naan dee leen liggéey nag bu baax ndax mooy tax ngeen man yii liggéey ba loo jàpp mooy tax nga mën a jàngal xaan mën a julli man mën jàng xasaayid ki amul dépasse suba te lu jàngal xaan te lu tu jàng xasaayid te lu tu julli mu ne ma tax kon dee leen liggéey mooy tax ngeen mën yii su ko defee kon ñeenti juróom-benn yi nga xam ne moom lañ fàggul moom yenn mu fàggul ngir man cee jëñ jafe-jafe économie yees benn laa ci limagun muy alaamal donc yi des na dañ ciy jaar jaar bu gàtt rek bi ci topp ñaari mooy bañ a yàq bañ a yàq ñun na foofu la suñu point faible nekk mën na liggéey ba mel ni mbaam mën a yàq ba mel ni kaña amul solo loolu suñu mbokk jigéen ñi la gën a la gën a la gën a laal wutum xaalis moom ñoo ko dàq ñëpp wut xaalis ñoo ko dàq ñëpp waaye ñoo dàq yàq ñëpp nag nda ba am lu bare bare benn bis wenn xew agsi gi mu tasaare ci lépp ba mu jeex delluwaat asiro loolu yàq dëgganut wala tubaddir tabdira inal mubadirina kaanu ixwaana shayatin wa kaana shaytaanu li rabbihi kafuuraa la suñu borom bu leen yàq ndax ñi yàq ñooy mbokki seytaane te seytaan dafa wedd yàlla bokk ni suñu doon tagg ay gaay am na ñu suñu doon doon ci alquran bokk na ci lan leen tagge mooy ñoom suñuy dépensé duñu ëppal ba doon yàq waaye duñu motti ba doon njariñ mott ba ba ngay def doon njariñ baaxut ëppal buy doon ak yàq yi baaxut waaye tagg na aw nit ci nag bu ñu dépassé duñ ëppal ba yàq waaye duñ noot ba doon njëriñ wala leen itaan faqu la mi su wala kan ben daal ka xawaama suñu neen lekk leen naan leen waaye bu leen yàq wakuloo wasrabu wala tusrifoo inna laa yuhibbul musrifin ndax yàlla bëggul ñu yàq économie sa say dépasse mooy genn wàllug dund économie sa say dépasse neen mooy genn wàllug dund al iqtisaad fi nafaqati nisful maisha moo tax suñu tubaab wax ne del lekk lu lew soo kër këree ba am lew nag bu ko yàq ndax boo ko yàq yàq fakul xalaalan in ori in arata an tutia الله والرسول يا هذا المطيع وإن وجدته فلا تضيعه وما يضيع الحلال ضيعه ñaana na nga lekk lu lew su fekkee bëgg ngaa topp yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo kër këree bam lu lew ne bu ko sànq bu ko sànq ndax boo ko sànkee rek sànq boo ko yàq yàq xam nga mu suñuy jamono ko man de Mbàkke damaa jaaxle sëñ bi na ko jaaxle yaar jaaxle yaar jaaxle nga na ma jaaxle àllaaxira rek su la jaaxlee àdduna demal liggéeyi su la jaaxlee àllaaxira demal jaamu yàlla ne ko jaaxlee àdduna gu liggéey mën ta faj Ahmadu Mbàkke xamu ko jaaxlee faj Ahmadu Mbàkke xamu ko wax ji jàpp ba ko ñettee mooy al ixtiyaat junj naa ko léegi mooy liggéey ba am lu ëpp li nga li nga soxla tey denc ngir waajal ëllëg ci njàngaleem Sëñ Tuubaa bokk waaye njàngaleem lislaam la amaat Sëñ Tuubaa suñu fàttalikoo yent yàlla Yuusuf nga xam ne maliku misro buuru misro gént gi mu géntoon te alxaar nettali ko alxaar moo ko nettali gént gis juróom-ñaari nag nag yu ak juróom-ñaar nag yi suur juróom-ñaar nag yooyu lekk juróom-ñaar nag yi suur yi mu ngeen gis juróom-ñaari gub yu tooy ak juróom-ñaari gub yoo xoom yéen da jaaxal ko yus yéen yàlla moo ko firi ba nga fi dawa ne tasara am si si si sama si na dara faxasul fe faxasul fi soro fi fi dëmbali yi mooy da dafa da ko firi ci ne am na juróom-ñaari ci kanam yu ñëw yoo xam ne yu naat lay doon juróom-ñaari at yoo xam ne naw day baax lool day taw bu baax day naat lool lu ci ji day nangu day barkeel waaye dafa fiir génn ba noppi joxe joxe joxe xalaat joxe solution na kon na état bi dagg ay suuf yu bari wut ay baykat jox leen jiw bu doy jox leen engrais jox leen jumtukaay ñu bay bu baax saa bu ñu bàyyee ba nawet wàcc nañ ca dindi tuuti luñ dunde ci at mi lay si ñu tabax ay état bi tabax ay magasin ñu denc ko bàyyi ko ci gub ya noona denc ko fatar wu fi tun bu lii dañ ko bàyyi ci gub ya ndax ci la denc bay gën a ñoŋee daf naa mag ñi bu ñu daan sàq ñu daan def luñ bojjugul lay doon kon boo koy denc mu doon dugub ju juñ bojjut moo gën mu doon juñ bojj te lay gën a ñoŋe illaa qalilan man des fóoti ji nga xam ne rek moom la ñuy dundee te des ci am mi maatakulul mu ne juróom-ñaari bi su ma def ne juróom-ñaari yi topp yu bekkoor lay doon yu mett lépp day woo koŋ dara doon su boobaa nag lii ñu dencoon nag ñu koy génn day dunde ci at juróom-ñaari yu bekkoor yooyu kon lislaam kon moo njëkk a jàngale denc ci ngir waajal ëllëg te alxaam mën ko nettali loolu bokk njàngaleem Sëriñ Tuubaa mooy murid yi dañ daan bay bu baax a baax a baax a mbay mu bari léeg daan dégg ab seex bu woote mboj mel waa ko seex mën ndumbe waa ko seex rafaal wala ngeen kër woote mboj te sàq yi ñu bojj du day doon mbojj ngir yóbbu addiye waaye ñaari sàq yi ñu bojj doon sàq waaye sàq daawal daw jóg la ñu bojj ngir yomb xaj yi Faati dundal na réew mi am at bekkoor am waaw yu jaaxle ko yu jële ak dund ñu takkale man cam ñu daan leb ko ay sàq lim bañ soxla ci sàq yëpp mu lebal lebal ñu séddale ko waa réew mi bañ delloo di ko laaj nan koy faye euh, tëral programme daal bu ñu ko koy faye man lebal naa lebal naa ko ci dàq fay mu yàlla def naa ko ci yoon yàlla man si ànd borom gaawam ñëpp dégg nañ jamono yu d'accord mu jënd bato ceeb bitim bato ceeb ñëw seetlu ko réew mi sëñ Tuubaa ci boppam na jamono jafe-jafe am bañ bëggoon diwaalee xaalis bi bu nekkoon jot jamono tubaab boo ko diwaalee ñu ne waaye bu ñu amoon somme cinq cent mille te jot jamono naa leen dimbale ba ba ba dootu jar ñu diwaalee xaalis bi sëñ Tuubaa moo génnee cinq cent mille jox ñu te jot jamono mën naa da ko nekk nit ñi xiifa ka dee déedéet dañu am lu lu lu day ba ëpp ñu ko moo tax bala am njëriñ def nañ ko ca ndax bu ko denc doon loolu kon ci njàngaleem kon eh, ihtiyaat da caa bokk muy denc ngir waajal ëllëg ba ca topp muy ñeenteel mooy al i'timaad ala nafs mooy sukkandiku ci sa bopp njàngaleem suñ tubaab la nit wëtt wéer mbiram ci nit ñi rek tàllal loxo ñaan sàkku ndimbal yalwaan déedéet da jëm jéem sukkandiku ci sa bopp sukkandiku ci sa bopp nag liggéey doomu moo la ko mën a may boo xam ne liy mus ci jafe-jafe économie ak bi mooy ñëpp yittewoo liggéey bokk na ci sukkandiku ci sa bopp tayal taalal sa bët ca asaka yi ñu joxe ak mbaa sarax yaag mbaa yu mel mbaa ndimbal yu jóge ci ci ko jege mbaa ko sori loolu du sukkandiku ci sa bopp bokk ci sukkandiku ci sa bopp itam ba tey sukkandiku ci ay bor yow daal bala ngaa mën a liggéey daal faaw nga dem ca banque yi ñu lebal la ab som nga door liggéey loolu du sukkal gi sa bopp mbir yu njëkkee da nga daan gis ko tër bi yow ba wàcc day wut ab layu jël ay benn bant banti soccam ak benn benn tàngalem teg ca di jaay daal nan tàmbali lépp boo man mën a xëy mutul deux cent francs layu ba dem ba doon kees kees ga dem ba doon askatin kanti sa dem ba doon magasin dama gis nga milliardaire yu ne ci réew yi yoo xam ne lañ tàmbale mëtul mëtul trois cent francs kon dañuy gi seen bopp waaye léegi na moom jàpp nañ ne balaa kenn liggéey dafa nga dem banque lépp nibal la som bu am solo nga doon mën liggéey loolu du sukkandiku sa bopp Sëñ Tuubaa ko bañoon bor la dinaa ci ñëw kon ñëpp sukkandiku sa bopp kon du du du aju ci sa du aju ci ay bor ci liggéey wala nga aj sa dund ci ci ci état ci misaal lu ñu lu ñu wax ne état bi état bi déedéet Sëñ Tuubaa nee na dafa bañoon kuy lu ci kanam borom alal te loolu daa yomb lu ci kanam borom alal neen saa boo tooxlu ci kanam borom alal donte borom alal ba sax saalix la nitug yàlla la ko yàlla ku baax waaye am na alal tax tax ci kanamam sa diine bu doon ñetti xaaj ñaari ñàkk nga fekkee nekku saale du ko baax na sa lépp dina nga ñàkk tawaaduun ilal ganiyi saalixi yudhibu sulusay diini kulli saalixi amma tawaaduun li waalin falaa yuqi mina dina la yaadan onqila mat naa bàyyi xel bu njëkk bu ñu daan jiit bu ji masaan jot faru ma ngi dañ daan indi seeni njiit ci sëñ bu mu ñaan ci ñu doon dem ji am bis kenn ci mag ñi indi aw jéem di ñaan lu muy ñaari takk mu ne ko lii lu mu ne ko lii de ci sama mbayum daaw laa ko wàññee mu ne ko lii nag mu ne ko lii moom seeko la dama ko leb mu ne yóot li mu wàññi ñaan ci ne ko leen du ma ci ñaan ndax bàcc du ci wàcc lam lepp mu ne ko du ma ci ñaan ndax barke du ci wàcc la muy tegtal mooy kon ab muri kon sukkandiku kon ci bor ci ci liggéeyam da ngay fexe bay sukkandiku ci sa bopp ñoom dañ daan wàññ dañ daan bay ma nag wàññ see jiw door a jaay bay nga jeeg gerte génn ci jiwu woo yéen li ci nga doo ko jaay dugub noonu leeg looy bay nag nekk noonu juróomeel mooy alxanaatu mooy doyloo doylu doyloo la nga tollool yam fa nga toll eh, doylu nag dafa nekk lu am solo alxanaatu kanzun laa yafnaa doylu koom la moo xam ne du jeex mukk bokk nañ ñàkk a doylu nag xeet sa capital alal ni ma ko waxee léegi bay leb ci banque ngir am départ bokk ci doylu it xeeb sa tolluwaay ba yotul tolluwaay boo agut ci misaal ñëpp teeraas nañ dinaa teeraas nañ ñëpp dem ca banque ba lépp mu indi lay jafe-jafe ba ca kasa ba mujj mbaa mba yu mel ñëpp am nañ oto dinaa am oto ni ñëpp dem ci banque ba lem jëndi oto déedéet ci dugg saret nga toll duggal saret soo dee ba am njëgu taxi del jël taxi soo dee ba ñëm am njëgu oto nag wala leew dong nga jënd oto kirinting nga toll sàkket sàkketal sa kër soo dee man tabax gëblin nga gëblin soo mën a teral teral ba àgg ba ba ngay mën étage nga étage kon toll fa nga toll bokkoon ci ba bay yóotu foo xam ne àggoo fa nit ñi ñàkk lu si tubaab moo tax day feeñ fii fii ñu nekk bi Dakar man nga ni kër yi fi nekk kër yi fi nekk quatre-vingt pour cent quatre-vingt pour cent fii kër yi ñu dëkk moomuñu ko dañu ko luye ñi ci moom seen kër ëpp du ëpp vingt pour cent foo ko seetee Tuubaa nag boo xoolee ña fa dëkk man ngeen quatre-vingt-dix pour cent yi kër yi ñu dëkk ñoo ko moom la fa luye matul dix pour cent wala ëpp ko kon mooy su mooy mooy jëfi jëfandikoo nañu njàngul Sëriñ Tuubaa te kër yi fa nekk da ci gis këri yi yu rafet gis yi kër terrasse gis kër yi géblin gis kër yi sàkket gis kër yi mooy kenn kon la nga tollool yaa nga ca saret saret mbaam yi bu ñu xëyee dañuy fees dell kon ña ko toll ña ngi koy jël oto yi fukk fukk yee ña ngay fees dell tata yaa ngay fees taxi yaa ngi am client ña am oto xat xëy seen oto ñu liggéey mooy kenn ku ne fa nga toog ko mooy jëfandikoo njàng bari ñu jëfandikoo njàngalem Sëriñ Tuubaa kon ci loola ba ko bokk ci yi dàq jafe-jafe économie ak ségut ndax su mboon dafay mooy kiy joxe mooy kiy dimbalee ci coobareem walla yàq yàq tur bi si la muy min ibaadi wa yaqdiru la na waaye la muy séddalee day jox kee lu na gàññ lu mënta jeexal jox kee tuuti du jox kee du jox dara kam jox tuuti ak kam jox daxar ma ngi ca wàllu kam jox lu ko ëpp daa war a xam lool na fexe ba génne wàllu ñooñu joxe ko asaka ci gën a néew nag asaka moo ci gën a néew day génne asaka ba nag dimbalee te yàlla tax ak saraxeeg maye yu yëpp dañ ko dañ ko sopp ngir loolu moo tax ngir dimbalee moo tax suñu borom farataal asaka saa ba amee lu man nisaab am cër boo ci war a génn jox ko ñu ñàkk moo tax ñuy digle sarax moo tax ñu sopp lool maye ak mboolem infaq fi bu ñu def rek ngir dimbalaan ci biir julli ñi moo tax ñu yoonal ko dimbale googu lu ñu xam la ci biir yoon murid ndax dafay njàngaleem Sëriñ Tuubaa ndax murid nee naa am murid bu am yette day bëgg kuréel bu mu bokk bu mu nekk bokk ci ñi ca gën moo tax murid yëpp dañuy nekk ay murid yu actif yu nangoo liggéey ngir doon ay dimbalekat doon ay joxekat moo tax gis bu koor jotee seex si laaj ay suukari koor bu dajalee ba mu bari njiit ko ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa moo xam ña ko jag ña ko yeyoo mu séddali leen ko su tabaski jot jegee ñu laaj ay xarit tabaski dajale ba mu bari lool ñu ki fi nekk Sëriñ Tuubaa mu séddale ko ña ko ña ko jagoo su màggal jege ñu laaj magi màggal su gàmmu jege noonu kon dimbalante googu nga xam ne day jóge ci ñi am jëm ci ñi amut loolu njàngaleem Sëriñ Tuubaa la loo xam ne dund nañ bu baax a baax kon bu ñu gisee kon juróom-benn yooyu muy nangoo liggéey bañ a yàq am lu ëpp sa soxla say beneen ci sukkandiku ci sa bopp doylu ak dimbalante. ay yoon la yoo xam ne yombul da ko tëral ngir jañ ci jafe-jafe économie assi loolu na bu amee tañ respecté dëgg-dëgg jafe-jafe doom mbaa bu jafe-jafe nattu su mboon lay doon la su neew na faaw ma nattu leen nag yuftoonoon fi su ma laa yetoo bun wala ñu yadakkarun aw laa yoroo anu yet anum fi kulli an marratan aw marratayn su ma dafa ne ak mu daa leen fi naal benn wala ñaar yoon fi kulli an marratan aw marratayn benn wala ñaar yoon la ci bëgg mooy bëgg ñu tuub bëgg ñu del yàlla del ci ñu def ko ma laa yetubuna wala hum yadhakkarun ndax ñu tuub ndax ñu del kon nit dafa dëgër bopp kon fekkee ña nga def la boole ko ne di tuub waxtu nekk di dellu ci yàlla di ko sant tey ñaan tey muñ jafe-jafe du masa am mbaa bu jafe am ja lu woyof lay doon su ma neen wa anibu ilaa rabbikum waslimu lahu min qabli ya'tikum al'adaabu laa tunsaruun deen dellu ci yàlla tey di ko jox seen bopp balaa mbugal may ak si faasi ak kenn du leen dimbale suñu baax daa ne suñu li tax mat a ragal dafa yor xudratu ak iradatu ndax boole xudratu ak iradatu te bu yëkkatee yaram ba nag kenn du ca téye su yëkkatee yaram ba kenn du ca téye kon nag lay lay tax yar ba du jóg fii lañ koy jëfee mooy nangoo jàmm yàlla bu baax te nangoo liggéey doo soxlaal kenn dara tey faj aajo ña nga ña nga ma faj seen aajo su ko defee rek kon lépp dana baax yàlla na suñu borom bool dimbale bool defal tawfiq xéel nu ci ak njub te saxal na ci te def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa nag nu suñu taalibe wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu rafet njort ga ma alaay sëriñ waxal dikkaat barki démboo rek maa ngi lijjanti jàkke ju ma am ju ma war a am fële sama kër maam ga ànd koog samay nijaay di ko dox di ci lijjanti léegi fii ci bés bii lañ ma wooye léegi ne ma lépp àgg na dem leen fàggu ñoo ngi ñëw tabaxal leen ko fexee leen ba ba indi eh, dund ak ñi leen ñuy liggéey rek kon loolu rafet njort ga ma àlla seen waxoon maa ngi leen di digal ne leen déglu leen digal fa ngeen ko war a déglu te buñ leen rafet loo njort ne ngeen rafetal njort su ngeen rafetalee njort seen adduna di rafet seen ëllëg di andi rafet rafet njort nag la koy wéral ndax eh, déglu naa kilifa gu mag mu wax wax ju ju doy waar joo xam ji jamono yam koy bëgg a wax dafa am kooku damaa jël sama téléphone bëgg koo woo wax ko wax ko ne ko nangam ak nangam ak nangam ndekete loolu ma koy bëgg a wax suma téléphone sonné laata may taal mu sonné ma déglu ko déglu ko sëñ Cheikh Fall Mbawoor astafurlah ma déglu ko xalifa général Baye Fall sëñ Cheikh Jëmb sëñ Cheikh Jëmb génn génn ci téléphone bi daal di wax ne murid yi mu ngi toog nii mbooloo mi ne ci gaaw murid yi wax lu baax yomb na ku wax lu baax ni leen ko wax nga lu baax waaye bu leen ko naw ku def lu baax eh, ku wax lu baax eh, ni leen ko ni def nga lu baax waaye di wax lu baax ko teg def lu baax ku def lu baax nag na ngeen ko naw jëf moom moo am solo fexe leen ba di déglu ku ngeen war a déglu bu leen waxee lu baax ngeen jëf jëf am solo de bu ngeen ko defee eh, yàlla na leen dimbale tey ak ëllëg kilifa yëpp am solo nag waaye kilifa yi daaru salaam da tàmbalee ca ka gën a ndawee ci saayir ba ci kii mag ba jamono xewee ak léegi dégg guma leen ci xaw ma ko def te yëgu dégg guma leen ci loo xam ne day dévier ab taalibe jëme ko feneen ak leneen ak yee ca biir yëpp mu ni su ko wax ci biir mboola waaye ñépp a baax waaye Daaru Salaam euh, yéeme nañ alaaj sëriñ ja nag képp koo xam ne ab taalibeem nga li nga xam ne sëñ Maamoor wax na ko nangoo liggéey te bañ yàq te nangoo joxe te di ko joxe fa nga ko war a joxe taalibu Alaaji Sëriñ Ja loolu moom xaw ma kenn loolu moom war naa sax ci yow loolu nag ñun moom lañ bëgg a saxal ci ñun ba ba nuy dellu maa ngi digal samay doom ak samay sët nag neneen loolu nag lay tax di ko am nga dunde lu lew dee leen dunde lu lew bu leen seet alali àdduna ji nga xam ne lépp suuf lay mujje lépp suuf lay mujje ku gëm ëllëg gëm ne dekki am na na ngay dunde lu lew ku dul dunde lu lew ab sëriñ du du ne mënuma du ne mënu ci yow dara waaye du ngeen dul gisee sëriñ Tuubaa dafa wax ne juba ngi nii ci laa aw bu ëllëgee ne ku aw feneen duma la bañ a dimbalee dan dul gisee kon na ngeen fexe jub jërë ngeen jëf loolu rek laay day tënk ndax sëñ Maamoor wax na lépp mënuma del lu ma waxal te bu ma koy ngeen seetee ci li sëñ Maamoor doon wax di addis moom ngay ngeen fa gis jërë ngeen jëf sant naa yàlla bi ma fekkeloo bis bii fekkelewaat ma ko ba tey jii di ma ko fekke maa ngi sant ci loolu yéen it sant leen ndax cantkat ma des na caa amee loo di loo foogul woon cant guy dëgg na ngeen sant na liggéey te bu leen ko yàq na ngeen di jéggale tey seen seen seen seen njaboot gii def leen seen kemtalaayal kàttan waaye am doom rek sànni ci àll ba rek lu mu def rek nga ne am nga xal te xuloo waxoo defoo dara bu ëllëgee sa borom doo amulay de sunu borom sax kenn mënut a amulay fa moom waaye ku bëgg njéggal ku ne na nga sonn ci sa njaboot jigéen ñi ngeen yore na ngeen leen di teg ci yoon man day fu ma yëgee nit ku jo jàppante ak soxnaam bu ma leen di jubale danaa xamal ku góor ka ne ko yaa tooñ xaw ma lu ngeen jote waaye yow yaa tooñ arijaalu xawamuuna ala nisaa yi wax jooju dañ ngeen koy seetaat yàlla moo seet ba ba ba xam ne lii ma war a nekk mu ne góor gi yaay njiitul jigéen ñi ku jiitu nag ci yoon ka topp ca gannaaw ci bu tàbbee ci pa kàmm yaa ko ca tàbbal bu pakk bu ko pakk fii la yaa ci yaa ko yaa ci jaaral ndax boo ko nee fii kat doo fi jaar fii ma jaar fii ma jaar mu jaar bu bañee loolu nag na leen jaral ngeen tàbb koo awale ci yoon war koo denc jigéen joo munta awale ci yoon mënoo koo denc kon nag bul yàq marchandise jàmbur na ngeen di jiim seen jigéen ñi teg leen ci yoon yéen jigéen ñi itam na leen wóor ne ah balu fetal day doole dañ ko jox moo tax mu mën attendal dal fii waaye bu fekk du doole dañ ko jox lu mu jugal fu ko fu ne bu fayeegee day sooy te ku xam loolu xam ne doomu gerte boo ko sànnee cib sébbu amatul ndimbal lakk rek lakk rek ah, sëñ bi nag yow yaag say mag maa ngi leen maa ngi leen di ñaanal di mbooloo mépp ñoo ñaanal njabootu Aliou Sow Aliou Sow bi ndax jàmbaar da koy nuru la wax jàmbaar da koy nuru Ousmane xale yëpp ngi tukki tey nga xam ne ren euh, tawat ji war réew mi tënk na ñëpp ba kenn lu nga ma a yow rek nga nit cëpp des fi ak ji la jàppale ngay organise lii yal na la yàlla jàppale yal na la yàlla jàppale yal na la yàlla jàppale jërëjëf sëñ sant nañ la guddi ak bëccëg toppoo ni nii laa mbàkke mbàkk laa sant déedéet da dikk doon jaamam ñëpp réew mépp ku dégg sa baat du nattable te itam waxoo ngir jox leen ma ni ngay waxee ñëpp dégg nañ ko nun ku wax ngir jox la xam nañ ko boo boo yëkkateen fii raaya kii rek yëkkati raaya kii yëkkati raaya dinaa xam bu ma dégloo dinaa xam ka cay wut raaya yooyu ka cay wutu raaya ka cay yow defoo ko da ngay wax rek liggéeyal sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf daanaka sax amatul leen lu ñu ci dolliwaat ndax dama waxoon ne sëñ Abdou Njaxat moo ñuy waxal ci turu Alhaji Mbàkke Jenn bu waxee rek daanaka tënk na lépp waaye dama ci bëgg a sànni tuuti rek doo ko delloo maanaam dama fàtte woon Alhaji Aloo Seyni mu ñaandaloon kàddu micro bi sa gémmiñ na jege Euh, moom tamit ci délégation bi la bokk waaw ndaxte Olof Njaay dane feccam liir bu neexee yaay yaay jaay feccam mbagg ya suñu rakk bokk ji muy maamun jenn wax dëgg yàlla sonn na ci yëf yi lool kon ñu ngi koy gërëm di ko sant euh, moom tamit ak euh, Baye Sil jenn ak Mor jenn doomi doomi Seex jenn ak Baye Cerno jenn di doomi Seex jenn ak Gala Fallou Galas jenn ak doom di doomi Seex jenn ak soxna na bu jenn mi di sama soxna ak soxna May jenn di doomi maam Faati jenn alaaji Mbàkke jenn ak euh, Baye Mbàkke Gueye mi surundoo sama papa muy alaaji Mbàkke jenn ñoo ñoo ñëw ci délégation bi xeeb nañ ko toor nag waa Njaareem gépp buñ sañoon ñoo ñëpp fii teew waaye xat-xatu jamono rek moo waral ñu bari mënuñu ñëw waaye amoon nañ ñëw lool li ñu andi tamit wax dëgg yàlla xeeb nañ ko trop wax dëgg yàlla macha allah euh, di xamal ne nag a famille alxaaj njàpp sow lu leen jàppoon muy benn jàpp nañ ko junni yoon ndaxte deseelatul ñu deseelatul leen ñu dara ñu dañoo leen deseel ndaxte wax dëgg yàlla bis bi ngeen ko mën a tudde bari na lool ngeen romb fii ñëpp tudde ñu ko loolu lu réere ci ñun am na fu mu commencé waaye mu fu mu yem lu tuuti li ma ci bëgg a dolli rek mooy euh, maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam ak ak alhaaji Ibra Ibrahima Dia mu ngi ma ñu ngi ñu ñu suñu bopp ñu koy jàppee mooy Serigne Touba ak Maam Cheikh Ibrahima Fall waaw ñun waa Daaru Salaam Maam Cheikh Anta Mbacke mooy suñu Serigne Touba loolu la mooy suñu Maam Cheikh Ibrahima Fall loolu mooy ndax Serigne Touba garab la bu doon garab tronc bi nga xamante ne mooy taxawal garab gi mooy Serigne Touba bànqaas yi nag mooy fenn fu nekk kër ga nga bokk. ñun nag suñu bànqaas bi ñu bokk mooy Daaru Salaam Serigne Touba mooy suñu maam Santa Mbacké wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di ko waaw di ko jottali sëñ Abou Ndiakhate du moote bu ci wees wasalaam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo leen di nuyu di leen siyaara di tàmbalee nuyoo bi ak siyaar bi ci sëriñ Abdul Xaadir mi nga xamee ne mooy kilifa jotaay bi di mi nga xamee ne moo doon def waxtaan am solo bi di nuyu mbooleem kilifa yi fi nekk yëpp di nuyu it njabootu Baay Alhaaji Sow ci njiital sëriñ Samba Sow ba ku ci gën a doon gone ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kàddu yi ñuy yëkkati nag ñoo ngi koy yëkkati ci turu njabootu Baye Mbacke Jenn te soxna Faatu Jenn ak alxaaji Jenn nekk ca bopp ba te sëriñ Taal mii moo leen fi teewal moo ko rakkam te suñu waxee njabootu Baye Mbacke rek mën nañoo wax ne yóbbaale na njabootu sëriñ Seex Jenn moom itam ak njabootam ñoom ñëpp ñu ngi fi di Baye Thierno ak Mor ñoom Galas ñoom ñëpp teew nañ fi kaddu yi nag kaddu yi sant la ak ak ñaan waaye dañ koy gàttal ndax daanaka li ci amoon soo lépp suñu taala wax na ko sant gi nag dañ koy door ci yàlla suñu borom tabaraka wa taala suñu borom yàlla mi nga xamee ne cant yëpp moo ko yeyoo ndax dañuy wax ne cant ñeenti xaaj la moo tax dañuy wax ne xaaji cant yi ñeent maanaam cant bu ñett gi mooy cant gi nga xamee ne suñu borom da koo sant boppam ñaareel bi mooy cant gi nga xamee ne suñu borom da koo sant ab jaamam bu mu gërëm ñetteel bi mooy cant goo xamee ni jaam bi moo ko sant boromam ñeenteel bi mooy cant goo xamee ni jaam bi moo ko sant moroomu jaamam maanaam moroomu jaamam da koo defal njëkk mu sant ko maanaam ñeenti cant yooyu yëpp suñ boroom moo ko yor kon sant yooyu yëpp mu ñeent yooyu ñoo koy sant suñu boroom bu loolu jàllee it njabootu Baye Mbacke jenn ci njiital soxna Fatou ak euh, alaaji ak suñu taalim yi nee nañu ñu ngi sant njabootu Baye Alhaaji Sow cant goo xamee ne su amee fu mu tàmbalee it amut fu mu ndax nee nañu ab cër ab cër dafa am solo rawatina euh, ab cër dafa neex ci xol dafa sedd ci rawatina cër boo xam ne nii dafa jëm ci yàlla suñu borom ndax bu ñu amee bu ñu amee ab seetlu rek maanaam xew-xew adduna yi nga xam ne day xew nga xamee ne ci wàllu fo ci wàllu fo la gën a jëm ñaare ña nga xamee ne dañ leen ko tuddee dañuy faral di ci bëgg lool nga xam ne dañ ciy génn xaalis bu bari di ko ca financé ngir tudde gën leen ko tudde ndax lim sedd seen xol moo tax ñu fay fera xaalis bu baree bari kon nag rawatina cër boo xamee ne daa jëm ci yàlla ndax jàng alquran ak bernde ak ñaanal ab jullit bu génn àdduna loolu lu ci ne tuyaaba la ñett yooyu lu ci ne tuyaaba la yooyu nag soo ko jëlee nga ne du sangam laa ko tuddee cëre la ko ab jullit loolu yaakaar naa ku bokk ci jullit boobee rek ku bokk ak jullit boobee rek loolu war naa sedd sa xol loolu moo tax njabootu Baye Mbacke gépp nee nañu seen xol sedd na guy am nañu mbégte mu rëy rëy moo xam ne nii mënee su ko melal seen xol sedd na guy xam na yàlla mi am pay daal yàlla rek moo am seen pay kon ñoom daal ñi ngi ñaan yàlla mi am pay yàlla na leen pay ci barke Serigne Touba loolu noo ngi koy ñaan seen xol sedd na buy xanaa di wax ne rek bàyyi Mbàkke ak bàyyi Alxaaji Sow mii ñuy ñaanal te ji ñoom ñaar dañoo bokkoon benn naanukaay ñoo bokkoon benn teen bu ñuy naane ñu teenu Serigne Ibrahima Dia Alxaaji Ibrahima Dia maanaam mën nañoo wax ne mbaarum suñu Ibrahima ñoom ñaar ku ci ne ak keno bu dëgër nga nga ci nekkoon kenn ku ne ku ne keno bu dëgër a dëgër nga nekkoon ci mbaar mi maanaam am na loo xam ne sax mën naa ko nettali mooy sama baay sama wajur alxaaji sax de moom moom laa ko dégg woon ah, ah. boobu nee na mas naa wax ne moo suñu seex Saliou suñu seex moom suñu Saliou ñoom ñaar loolu suñu seex mi ngi jàpp ndal léegi dañoo àndoon ñëw fii Ndakaaru am lu ñuy lijjanti waaye nee na booba bi ñu ñëwee fii ci kër Baye Alaaji Sow nee na fi la ñu wàcc fi la dal saa bu ñu xëyee dem Ndakaaru lijjanti lañ fay lijjanti ba aajo mat nga xam ne am nañ fi ab semaine ci kër gi loolu li tax ma koy nettali mooy li ma ci jublu mooy xam naa ne ñoom booba am nañ feneen fu ñu a dal fu dul fii waaye li tax ñu toog woon kër Baye Alaaji gi mooy liñ gis ci moom maanaam njulite gën gis ci moom ak bi gën gis ci moom ak poste bi moo taxoon ñu bàyyi kër yëpp ñëw di ñëw di dal fii moo loolu ñu bàyyi ko ñëw di fi dal kon loolu day waaye naan bàyyi alaaji ku woon la jullit bu dëgg woon la ak taalib bu dëgg woon la ndax kilifa yooyu ku ñuy bàyyi kër yëpp ñëw dal si kër dañuy xam ne kooku la te loolu it ñu wax ci ñu mën a seere ci bàyyi nañ koo seere ci bàyyi alaaji Mbàkke moom daanaka moom euh, ak njabootam moom la jëloon wax nañ ko fii léegi jëloon na doomam jox ko euh, jox ko Baye Mbacke jox ko Baye Mbacke waaw comme ni sama baay jëloon Baye Cheikh jëloon doom bi jox ko doom Baye Mbacke muy Cheikh kon daal euh, njabootu Baye Mbacke ñoom daal ñu ngi sant bu baax a baax da xam leen ne ñoom ñaar muy Baye Mbacke ak Baye El Hadji fi ñu farawoon ci toolu si Ibrahima maanaam bay nañ seen soos soos yi bay nañ ko ba dara boyut yi ndax xam naa li des rek mooy doon leen a ñaanal ñoom ñaar ñaanal jullit yëpp di ñaan suñ borom yàlla na borom dolli seen i leer borom dolli leen yërmaande te jabar gi ñu fi bàyyi yàlla leen sa borom dollee sàmm dolli leen a wattu aar leen ba li nga jur yi yéene woon lépp ñu def ci lu bare bëri yàlla na ko sa borom def ci barkab Sëriñ Tuubaa xanaa ñu yemale foofu kàddu yi rek asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit ñun siyaare ñëpp di balu ñëpp ak di balu ñëpp ak te ñaan yàlla suñu borom ñu borom jàmm lu defal jàmm di wax na ci tuuru njabootu aji soxna Sarr bi mu ngi xam ne bii bàjjen la woon kii alaaj njàpp la sow te man bis bii dama cay fekk lu bare bare bare ba fi alaaj sëriñ jaay di ñëw di gane seen nijaay alaaj njàpp ba ñun dëddoo àdduna ba nijaay alaaj njàpp dëddoo àdduna boobu waa këram di taxaw bés bii ba mu ngi alal ni daala njàpp génn ak dund fukki at ju nekk ci ren xale yi di ko taxawu tàmbalee ko ci sàmba muy seen taaw bàyyi bu góor ak faatu bala muy seen taaw bàyyi bu jigéen ñu koy taxu ci anam yu rafet rafet rafet te itam boole ko ku jub ak taalube du ko def itam ci ak rafetal suñu borom di ba boobu ba tey ren jii ñu tudd ko aji soxna Sarr Sow Aliou Soxna Sarr Sow nag daa moon taxawaay bu mu taxawaay woon ci kër Serigne Bassirou kër Serigne Bassirou googee mooy nekkoon ci Touba Kolax njaboot Serigne Bassirou gépp li tàmbalee Serigne Moustapha Bassirou ba Serigne Isaaxa mu gën a doon xale ci njaboot Serigne ci kenn ku ko daawul dax bàjjen ñëpp bàjjen la ko doon wax ñëpp bàjjen la ko doon wax amu ci kenn ku doon wax Bassirou ba ci soxna Astu Buri mi xam ne mooy taaw bu jigéen soxna Saara ko yóbbu kër si sama mbàkk gay na kon foofu ay soxna saa soow am na fa cër te itam li ciy ëpp nag mooy jikko ju rafet jikko ju rafet ak yaatal ak rafetal loolu lu mu am ci kër sëriñ Basiru loolu moo ko mayoon te itam bi muy dem itam bàyyi na fa aw way wu rafet mooy booleel mbokk jubaleel mbokk defaril mbokk ndax suñu borom moo wax ne am moo suñu borom moo sax ak mbokk boole leen ak sëriñ yaa ko wuti ak xarit yaa ko wuti àndoo yaa ko wuti waaye suñu borom moo soob na ko neex mu boole leen ña ku sàmm ak mbokk ma sàmm sama diggante yow ku dox ak mbokk ma dox sama diggante yow wala xayaatu billaay te itam jëmm jii toog ñaan ko sëriñ maam xam sa diine man dama koy xool Lamp Fall ndax su man nii ab bi laa sëriñ Muntaxa moom sëriñ Basiru mooy sama wasila waaye tam damaa bëgg ku may déglu ci fu ma toll tënkaat ma ci ndigal suñu borom ndax suñu borom ba mu sàkkee dafa sàkk nit ak jinne ngir ñu jàmm ko wa maa xalaqnaakum jinna wal insa illaa liya'buduun la ko wax suñu borom mooy nit ak jinne sàkk lu lu jàmm ma kon nag ginnaaw bu ëllëgee ci loo xam ne mu jàpp te allah ku doon ku ci nekk di nga wéte suñu bu ëllëgee boo def yow da nga la sàkkoon wa kullu aati ilaa yawmil qiyaamati fardan alxuraan ko wax te suñu borom wax yëpp dañ ba mu des waxee yàlla jàllale loolu bés bii nag njabootu soxna Saar soxna Saar yëpp li commencé ci ay soxna Saar ak ak njabootam yëpp njabootu Faatumata Joor Sowat njabootu Aliou Sowat ñëpp ñu ngi ci biir ñu ngi ci ñu ngi ci biir sant gi li commencé ci waxta yi ñuy taaw ba ci aji fannaar ñuy caat ñëpp ñu ci biir sant bi waa kër Koura Sambaat waa kër Joboga waa kër ñun na li mu mën a jëloon yëpp ah def ko ci wax ci bés bi suñu bésu ñu jaay la du suñu bésu du suñu bés boo xam ne bii ne ni ci Ousmane ak Samba men ak Fatou Gallo ak xale ci kër gi yëpp ñu itam loolu taxawaay bu la ci war a am ndax ñëpp ñu ngi àllaaji njàpp ndel daanaka ci parti bi ñu ci bëri fi ñu Guinée ba ñu fi ñu France ñu ci bëri lu ci bëri mën a ko téye te ku nekk na mu daal teg njub tamit saa suñu tàkk yi kon nag amal nañ ko ngërëm am ko sant ginnaaw gën nag bàyyi ci njaboot njaboot bi ñi ci jiitu nag te te te gën cee ràññee Ousmane mu ngi di ñaan ñoom ñëpp yàlla su ma defal la fan bu gudd ak wér defal la sutura ak xewal ak ko mbokk gépp te ñaan yàlla suñu borom ak mën ak kattanam ci dara yonent bi alayhi salaatu wa barak Seex Xaadim yàlla ko fekk at yu bëri bëri jàmm salaam wér ndax ab julit amul bu mu ñaan yonent bi nee na al duwaawu salaam wér ñaan mooy nganeel julit ñaan mooy nganeel julit kon nag ñu tënku di sax suñu borom te di ko ñaan te du ko wéetal suñu borom tey jàngal xuraan yonent bi ne gën ci mooy ki jàngal xuraan di ko te di ko jàngale ñun xayrukum taalimal xuraan wa allama yonent bi ne ci gën ci yéen mooy ki jàngal xuraan di ko jàngale sëriñ Muntaxa muy jiit yoonu murit doon na wax ne bu dee jàngal xuraan doo leen ko teewlu te di ko déglu bu leen noddu doo leen teewlu noddu te di ko déglu ñàkk a teewlu noddu ñun noddu ngay wax day métti sukuraat da ko yàggal kon nag daa am loo xam ne suñu daa taxoon sàkku suñu borom amul jot du ñu bind amul temps duñu dund néew ko dañu dund danoo sàq wàcc ñu ci kaw suuf ngir ñu ko ci suuf wàcc ñu ci kaw suuf li ci biir suuf te àllaa pour li ànd ku faatu say jëf nga ngay fekk ci ci biir suuf te bés péri ku ci ba liggéey ba liggéey du àtte kenn ci ma sàmm du àtte kenn ci jëf ma dem ku nekk ba liggéey kon bàyyi xel loolu te lii fi aw diggante daaw ren war naa yee ku ne ku la nelaw war laa yee ku gëmmantuwutoon war laa tere nelaw suñu borom wàcc na loo xam ne kenn mun ci ko yàlla suñu borom ñu ko wàccee te jaamu yàlla bu jàll yàlla yabal suñu mu def li ko suñu nag saa boo ko fàttee bu la fàttee bopp nga fàtte sa bopp doon rek mu fàtte yàlla suñu borom mu fàtte suñu boppam foog mu fàtte suñu bopp kon nag li gën mooy dellu ci yàlla ba ñu dellu ci yàlla suñu borom te Cheikh Saliou Mbacke ñun doomi Serigne Touba doon na wax ne doomu aadama ñaari biir la ko suñu defal mu si biiru bopp bi ak si biir bàmmeel si biir bopp bii saa boo xëyee suñu borom dina wërsëg woo ci def na la si biir bàmmeel bi yitteelu loo fa def doo ko fekk doomu aadama bu nekk war ngaa bàyyi xel bu dugg njëkk ci bàmmeel métti yaag tàttal yaag tiis ak ak jafe-jafe kon loolu war na koy bàyyi te di ko fàttali ku baax a baax a baax a baax te boobu dee ndax dee du dee du ñun ko feeguwul suñu borom ne dee na ko dee na ko sam dee na ko foogee doomu aadama nag li nga mun loolu suñu borom def la wala li nga mën yaa ko defal sa bopp doomu aadama day sabablu suñu borom ko wax sa xool waatee naaw min ku lu seen sababin da ngay sabablu suñu borom da laa fekk si dimbali la waaye bu na croisé les bras rek wóor duma def dara yàlla baax na bu yàggee da nga dana demee na noonu ndax suñu borom du may ki defu dara ah bàyyi ki bàyyi bàyyi sabablu doomaa balaa balaa mën a ñaan suñu borom mu koy nangu day sàkku léew di ko dundee di ko mën la ñëw ba tam amul génn guy lekk guy lekk lu léw wala nga lekk euh, lekk riba riba wala ak di wax mu réew yu amul yàlla may kenn daraja te kon nag noonu góorgóorlu ci njub ak dëggoo ragal yàlla noonu del nag di ñaanal Ousmane nii bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax mbokki rakk makki magam giseen taxawaay bi yaa ma dégg giseen taxawaay bi ay ay magam ñu ci bari ñu ngi bitim réew ay ay ay jigéen la fi nekkal te itam am neneen ñu doon demee bés bi dina dellu ginnaaw waaye at mu nekk bés bi day gën a jëm kanam te loolu lépp ah barke bu fi seen bàyyi bàyyi la dara ji seen bàyyi bàyyi la lu seen bàyyi bàyyi la ndëkk seen tànk bañ cee bañ cee bañ cee teggi njabootu Soxna Sarr gépp ñu ngi gërëm njabootu mu yàlla njàpp loolu gépp di leen sant di leen gërëm te ñaan yàlla suñu borom bu dëgg taxaw bi te yàggal ko suñu borom mën na ko ak am na ko sañ na ko yàlla na ko doon defal bu jaay si lu barke Cheikh Mansour Khadim jasakallah ana xarin jasaay aoudu billahi bismillahi inna waliyallah saddi lisaani nawir janaani safi amaani wasid baraay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu àq te di leen balu àq di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu baal di ñaanal Cheikh Mouhamadou leen Muntaxa afisahu llahu wa raahu yàlla sàmm ko te aar ko te kattanal ko te guddal aw fanam ba lim yéenee liggéeyal lislaam yéene ko liggéeyal maamam mu liggéey ko ànd ko jullit ñëpp barke borom Touba ñoo ngi yëkkat suñuy kàddu nag euh, ci turu maam Omar Dia xaadimul Quraan nga xam ne lii ñuy wax kàddum la moo ko waroon a wax waaye dafa sàkku ci ñun ñu waxal ko ko kon ci turam ak ci kàddum ci lañuy yëkkatee kàddu yi ñuy bëgg a wax muy kàddu yi cant ak kàddu yi ngërëm ak kàddu yi sàkku ñaan gannaaw bu ñu nuyoo bi ñu ziyaare kilifa yépp te di ci jiital kilifa bi nga xam ne mooy sëriñ Abdou Khadir Dia waaye di ko tàmbalee ca seen kilifa muy sëriñ Maam Omar Dia mi nga xam ne moo moo moo mooy xalifa Alaaji Ibrahima Dia ak sëriñ Abdou Khadir mi nga xam ne mooy kilifa barab bii ak mboolem rakkam yu baax yi mu àndal ak mboolem njaboot ak ala Ibrahima ka jag jag yëpp ak mboolem waa Daaru Salaam yëpp ak mboolem jullit ñëpp ñoo leen siyaar baax di leen jox seen àq di leen jox seen wàccuwaay di siyaar baaxee nag kilifa bu baax gi nga xam ne mooy Serigne Mamour Mbacke xam sa diine Serigne bi wax na ko léegi Serigne Mamour Mbacke xam ne diine ñoo koy ñaanal yàlla. sàmm ko te aar ko te guddal fanam lool te kàttanoo ko te barkeel gën a barkeel xam-xam ku ne xam na ne sëriñ Mamoor mu ngi liggéeyal maamam ni ko sëriñ bay mu ngi liggéeyal sëriñ Tuubaa bu wér-wér ñëpp xam nañ ko yal na ko yàlla kàttanal te guddal fanam te nangu ab liggéeyam te boole ko mboolem mboolem taalibe yëpp ak mboolem jullit su ko defee liggéey bi nga xam ne moo ñu fi dajale sëriñ Abdou wax na ko léegi sëriñ Abdou Ndiakhate mooy ñetti mbir rek moo ñu fi dajee muy sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ak ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ñaanal ko ci ay jaamam yi nga xam ne liggéeyal nañ ko ba fàddu te làq ngërëmam waaye ak berndeel mbokki jullit yi nga xam ne teew nañ ci barab bi kon ñett yooyu sant ak ñaan ak bernde yal nañ ci am defal ñaan yëpp yal ko yàlla nangu te lépp luñ ci jëf bu déwénee ni man du ko weesu kon ci turu maam Omar Dia Xaadimul Quraan ak mboolem sëriñ daara yi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bii muy liggéey toolub sëriñ Tuubaa muy alquraanul karim moom ci kàddu la ñuy wax yàlla dogal na euh, teew na ànd ak mbooloo waaye teewaale na it bépp sëriñ daara boo xam ne yaa ngi yor daara di jàngale ndax jëmmam fu mu teew rek man nañoo wax ne teewaaleen na sëriñ daara yëpp ndax tur woowu ñu naan ko xaadimul quraan euh, mooy waral fu ñu ko tuddee xel yëpp dem ci alquraan ci moom lañ àndal ci liggéeyal yàlla bi ci liggéeyal sëriñ bi mbooleem sëriñ daara yëpp ñun la ñun la ànd ak ñoom te rafetal liggéey bi lool am ci yitte ju kawe ak yéene ju rëy rëy rëy ci lay xëy guddeeg bëccëg ci lay gontu ci lay fanaan saa su ne foo ko gis loolu mooy ay yitteem li nga xam ne nag jàng nañ ko ci li kaamil alquran yi toll na ci junni ak ñaar fukk ak juróom-ñett mille vingt-huit kaamil alquran jàng nañ ko loolu rek doy na doy na sëkk àdduna li ci biiram xañ na ci te loolu lépp yàlla na ko jaarale ci moom moom moom xaadimul quran nii sëriñ daara yëpp kenn ku ci nekk def nga ci sa kem kàttan ñi ñi mu àndal ñëw am ñu ñëw ñoom ñëpp moo ngi sàkku ngeen ñaanal ko te ñaanal mboolem sëriñ daara yi yàlla wéral leen te kàttanal leen te guddal seeni fan te jox leen i xéewal te barkeelal leen seen ab liggéey ndax kat ku ne xam na ne alxuraan mooy lépp mooy njëkk mooy mujj mooy tey mooy suba ëllëg alxuraan rek moo ñu fay jariñ Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu nii ñu toppee mu am lépp mu ko jëlee ci alxuraanul karim ak liggéeyal sangam ba sallallaahu alayhi wa kon ñi nga xam ne ànd naag ñoom euh, moom xaadimul xuraan jëmm ji di wax muy Cheikh Mbaye di sëriñ daal ca Daaru Salaam ak sëriñ Ousmane Dia Cité Fadia ak sëriñ Abdoulaye Ndaw ñëwoon na ànd ak ay dongaam ak ay dongaam euh, fi la ak sëriñ Bassirou Xuma Parcelles Assainies ak sëriñ Mor ñi sëriñ sama kanam moom sëriñ Mourtada Mbacke Pikine ak sëriñ Alhaji Diop golfu Cité Aliou Sow sëriñ Alhaji Diop golfu Cité Aliou Sow ak sëriñ Mamor Mbay Pikin ak sëriñ Gora Sène Safoor Géejawaay ak mboolem daar daara yëpp ñooy sant ci liggéey bu rafet bii nga xam ne suñu borom suñu borom féetale na leen féetale na leen ko euh, di ci sàkku nag yàlla nangul leen ko ci barkeeb borom Touba kon kàddu yi loolu rek lañu ci doon mm, wax su ko defee ñu ngi jéglu baax nag xëy na ni ñu ko waxee woon sax gën naa rafet nii gën gën na koo mate waaye ndax waxtu bi moo ko laajut ñoo ngi jégalu bu baax di siyaar ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu fas yéene yëkkati ay kàddu ci ndigalal suñu kilifa alhaaji Abdul Xaadir Dia xalifa alhaaji Salim Dia kàddu yi moo ko teele ngir ñu joxe ko ci turu sëñ maam Omar Dia xalifatu Alaaji Ibrahima ak sëñ Awa Mbàkke ibnu Cheikh Mahamadou Mamoun Khalifa bu ñu tàmbalee suñuy kàddu yëpp ay cant la ñu nekk bu ñu seetee suñu borom taala li nga xam ne loolu baaxee ñu fekkewaat bis bii julli julli yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi ñaan yàlla wa taala alquran ji ñu fi jàng muy lim bu takku ñu wax junni ak lu dagal saamoom nangu lépp ci mbaaxam ak yërmandeem ñu ñaan foofu nag suñu borom subhanahu wa taala yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mourtada te may ko wér ba lim yéenee liggéeyal maamam di tedd ji mu def ko nan ko bëggee te ànd ko ak moom ndax kat dañuy wax ne Cheikh Mouhamadul Mourtada bépp jotaay boo xam ne yaakaar def na fa tuyaaba yaakaarees na ko nangu ñaan warees na ko faa ñaanal kon ñu ngi ñaan yàlla dañ ko fa yàggal lool ba mu kii ma te ànd ko moom ñu ñaan yàlla itam ak Cheikh Sima Omar xalifa laaj Ibrahima Dia yàlla yàggal ko fi te may ko wér ci bëgg a jokkoo ak na ma waxal Ousmane ne ko moom nga saw gépp ay magam ak rakkam ak yaayam maa leen di nuyu te di leen ziare ba muy wax ak nee na maa ngi jëm ci jàkka ji waaye su ma de maa ngi teewal sama bopp lii ne moo ko wax ci téléphone tey yi ci bëccëg kon nee na sant na baax gërëm na jataay bi yàlla yàlla ci barke am nañ ci yaakaar loolu ndax dooy wax Ousmane ne ko magal bi am na benn secret bu kii laxasu ndax yaakaar naa ne xew-xew daaw bi fi am yëpp am na fi waaye magal bi mësta génn daaw def nañ ko ko kon yàlla yàlla nangul ñu sotti ndam seen daara yi di ko teg ci loxol xaadimu Quraan ba Omar Dia ndax mboolem ñu ñoo daay alquran ci Sénégal bi ñun ci xawul bëriwul te mboolem ñu xam ñëpp jël na téléphone woo leen sàkku ci ñoom ñu jàng alquran kon sëñ bi waaw bàyyi jàpp na leen jërëjëf yàlla yàlla fay seen daara yi te barkeel seen sëñ Maam Mor Mbàkke dañu lay sant di la ñaan yàlla yow mii ñaaree si mu toxaa noonu lañ lay ñaaree nga yàgg fii ndax ci bëgg si mu toxaa nga nekk muy sàkku xam-xam ak di ko xam ne ko tax barab bii saa yoo fi rek joxe bind yu bees bokk na ci bind yi mu joxee war nañ koo jéem a jàngat ko jëriñoo ko ndax liggéey wax na ko leeral ko bu baax a baax a baax dañuy bàyyi xel liggéey ñu ko suñu maam waxee moo joxe travail adduna jaamu yàlla yu joxe travail àlaxira liggéey nag bay joxe loolu mooy boo sellal li nëpp waaye dana wax comme ñu am njëriñ ma bëgg ñu ñëpp ñu liggéey ñu xool xool ko ci nit ki ki gën ci nit ñi ëpp njëriñ bu xoolee misaal ñu joxe ci sëñ Tuubaa dee la anhu ba mu joxe téeméeri junni joxe ko ngir Sénégal yëpp maam ca ba mu ba nga ngir njëriñ bu ndee fii maanaam weeru faat yi ban joxee saqiya Sénégal gépp la ko yàlla njëriñ mën ko loolu kon kenn ku nekk war nga jéem a seet yow bu xool askan bi nga bokk loo leen jëriñ ak réew nga bokk loo leen jëriñ jullit loolu mën naa jàngal benn doom bi itam moo di ñëwoon ci sëñ bi di ko wax ci suñu waxu ñetti yëf bi mu nee dama takk soxna mu ne yaa fi mu takk ne ko damay takk mu ne ko ngay woon mu wàcc mu ne ko kon yaa fi yées kon war nañoo xool nag ne mën naa jàmbat jàngat yow soxna wax wàcc ko kon loolu baaxut moo tax yées waaye ba ñu dañ koo waxtaan lan moo sawut nag wacc gi bari lan moo sawut wacc gi bari loolu lu mën waxtaane la am nañ ci waxtaan yu bare bare bare bari waaye kon jigéen ñi ñu war a dénk nañu leen di yow ngir yàlla ñu ko dénk fi ñu daanee mooy nga doon ba alaay sow bii Ousmane Sow tànn bi ko yàlla tànn jaay ko ci wàllu ci biir kër baayam mën na maa wax ne alhamdulilah ndax day bis bi dana ci dundal ko yële jox ci ak bokk def ci ay tiyaar dañoo ba daal soxal ñetti xalifa bi da ko tàmbalee si si ma si ànd nekk. ba suñu awoon fi nga tey ñoo laaj digal jàpp suñu Abdou Khadir jàng fa du Alaaji Ibrahima Dia bokk yëpp kenn ku nekk mu doon boppam ba am fa yow te mu def lu rek mu doy loolu lépp kenn ku nekk ak yaakaar la wàññi la ñoo ko bokk kon suñu Ousmane suñu Abdou Khadir ak jamono Alaaji Ibrahima Dia ñu ngi lay yal nañu yàlla suturaal yal nañu yàlla nangu may wax ne nag Baye Mbacke Dieng bi nga xam ne moom lañ tuddee bi dafa bokk ak Baye Alaye Sow ay mbir yu bari ne ko suñu bu waxee ñu nekk woon keroog ci kër gi waaye ay taalibe yoo xam ne ñu daan liggéeyal te du yàq. liggéey liggéey lépp ku soxla ku sëñ bi si wàllu boobu bàyyi a yàq suñu koy fedd leen liggéey te a yàq te sàkk lu leen yàlla boole na leen ñu faatu gore taxawee ci kër Baye Mbacke tey jigéen loolu la fana fat jéem taxawante Baye Mbacke tey jigéen jigéen ju man góor ñoom loolu la yàlla bindee uuf nañ seen rek ànd ak ñoom di leen jàppale ci kaw ci biir ci musique te ko yëgu kon waxe Baye Mbacke rek ñu ngi sant waxe Baye Allaye Sow bu baax a baax tey ñaan yàlla nangu jëf nag Baye naa ne ba doon nag na nga wax si ne ko maa ngi fàttali ak ñuy ndax ñu ko jàppale huit cent mille te kenn ku ne xam na ne joxe addiya xew na waaye ci daaw salaan lañ ko rey daaw salaan ba ñëpp di ko rey ci moom may soññ sama bopp nag di soññ mbooleem taalibe yi képp koo xam ne ci yàlla may nga fekke ko la nga naa def na ko yokk ndax kat yàlla ko fi bàyyi te bu mënee dem am pare war ngaa seetlu wala duggale Sëriñ Tuubaa génne sa alal la ko joxoon daaw ba fekkoon ko fexeel nga jox ko kon yàlla na yàlla may fekk ko te jox ñu mën a yokk yokk gi demee rek nga ne li ma jox Sëriñ Tuubaa daa yokk daa yokk suñu mbokku jigéen yi sëñ bi ngeen fas yéen ñëpp bàyyiwul kenn. waaye suñu maam boo xam ne bii dafa am solo nee na gi ñu yàq ci xew yi te kat bari na lool lool lool waaye dafa am ci dëkk amul duraa fanaanee yebbi ba semence set joxe ay millions ak takkaay te yàlla bu ñu ci duraa permanent ko dëkk loolu waxtaan nañ ci waaye waxtaan leen ci di sa doom yor ko ba mu mat a sëriñ nga mën ko joxe teraanga doon comme duñu dara du la doy kon si Abdou Khadre ñu lay ñaanal yàlla na yàgg loolu jiital nga topp si ginnaaw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. defe naa sëñ bi li nga wax moom laaraam noonu lay sal xabar kal muayyanati mu ne lu ñëpp xam jërul xibaar waaye xaj kay nañ ko xibaar ndax di ko xamul. ala njàpp macha allah ku baax. ku am lislaam ak diine ak dogu xam nga alaaji dafa amoon fit woo xam ne bii xam nga bañ may def yi limaan ci jàkka ji ba ko dama doon liggéey benn waay bu doon jiite mu jiite fi timis jiite fi gee fekk nekkuma fi dama am fu ma deman tisbaar jot eh, eh, dafa jiite dafa jiite tisbaar ak tàkkusaan fekk nekkuma fi ba ko damay liggéey ma wàcc mun ma imaam mayel kii mu jiite ndax dafay jiite te ti tàkku ta tiñu eh, seg gee eh, tisbaar tàkkusaan kenn xamul lu ñu wax kon nañ ko bàyyi mu jiite ñu xam li muy wax boo déggee mën noo jiite ku dëggoon ngoo ko wan mu biiral am ne kon nit di ngay am fulla am fayda l'islam dafa bëgg ko am nit am fayda kooku lu ko baax a ngoogu ko am fit soxna bu sa njaay bu mu feebaree dama fi mos a ñëw benn ko mu di ko toppatoo saa bu ñëwee di ko seet rek soxna bu sa laa fi fekk maintenant bu sa wax ko baax la mun imaam yaa am fit de yaa ngi gërëm jabari jàmbur ma ne ko gërëm ma ko waaye li ma gi sañ naa ko wax mu wax nga dëgg kon sëñ Abdou Khadir jamat nga sëriñ fa tabarakallaa ñu ngi lay ñaanal gudd fan le sëñ Tuubaa waxoon ci sëriñ dafa noon yasabu sayxan aarifal masaliki yafiha fi tariqil mahaliki yuskinuhu llahu insaarahawu wa yuusila dégle mawlaawu yasa bu na nga ànd ak saytan bu xam almasaliki yoon bi yafiya moo fi tarixi ci yoon wi almahaliki alkandi yi lu muy def yuskinuhu llahu moo lay fàttali yàlla insaaraha waxtu ngeen gisee wa yuusil bu du bii mënut a yóbbu kenn fenn frein wallaay du kon nag dama ni sëriñ bi sëñ dama dama ni ku kaalawut bi sëriñ mu delluwaat mu ne lay sosu jaaxul la si yax lii fawaari si hoo yow masti xamuñ salman xar bu tastahilu lakin man xalatar fan aw um sanaa xadaman xamil ma asi fa sàkkal farisul batalu sëñ Tuubaa dañ ko doon laaj kan mooy jàmbaar mu ne commandant bi dem armée xeex aar ay gawaram kenn damuwul kenn ñu ni mooy jàmbaar sëñ Tuubaa lay susu jaaw ñu ni ko xaadim kan mooy jàmbaar mu ni laajte ni man xale tarfan aw unsanaa xadaman anil maasi fa sakkal farisul batalu jàmbaar mooy kan ba mu toolee ci àdduna wan ginnaaw àdduna wan ko léppam sëgg wuti yàlla rek sëñ Tuubaa ne kii mooy jàmbaar te kii moo di gawar kon waaye gars yi nañu góorgóorluwaat ci ragal yàlla ak jaamu yàlla damay faral di wax ne àdduna bi pom yi te yàlla dafa ne fa surtout ma ànd baax naka naka mu am basan yàlla bindu ñu pour fo to bi bari na lool surtout suñu mbokki jigéen ñi dañuy defar seen kanam teg ci xeef damu xew du ñu julli tisbaar du ñu julli takkusaan du ñu julli timis ndax bañ xew ndax bañ li nga def ci kanam nga yàqu boo legee bu njëriñ ñu ni yàlla suxuñu du noonu nit da ngay julli waxtu juróom inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar wala shukrullaahi akbar wala ya'lamu maa tasna'uun julli bu fekkee da ngay julli te dindi wut cew dara yaa jàpp julli waaye julli jàpp la kon nañu góorgóorlu ci ragal yàlla ak jaamu yàlla da ngay dégg mag ma ne am naa juróom benn fukki at dafa juumal xam nga lan la war a naa juróom benn fukki at ci sama dul taxaw mu ci des li nga amal li nga denc kon gaa yi nañu delloo saat xel yi ca kat yàlla day maye àjjana di jaay sawara da ngay xool boo demee ci jàkka ji di julli to to do yi ngay dox ci ci dem ci jàkka ji rek yoon bi nee na ngeen xamal tuyaaba ji wala xooban donte ne ngeen di dof lu sax dem ci jàkka ja wallaay di nga ko di ngeen ko def waaye di ngay gis grand place puusal rey naa la koo rey sa bopp nga da ngay defar yaram yi dañuy lekk ba suur Sëñ Tuubaa dañu ko laaj ca njaareem ne ko mbàcce mu ne xam ngeen lu yàqu dugub ñu ne ko mbàkke xamuñu ko de mu ne ñu defe lekk ba suur mu des nga tuuri ko mu ne déedéet yàqu dugub mooy lan lekk ba sa biir fees mu rey si sa biir bi te jaamoo ci yàlla la xale yi def lekk ba sa biir fees nga daw ci géej di sëpp jalañ boo sulli ci yow julli tisbaar boo julli tàkkusaan boo julli timis doo julli gee nga da ngay defar yaram ni koo koy defaral sax yi defar jikko bi ca jamono jikko mu dara amul jikko ko mu dara nationaux étage te yëkkatiwu gaa yi ni sama ak a jafe ci jamono ji léegi moo tax bala ngaa wax du sama xarit la na nga teelu da ngay wax du sama waay la bala nga ni sama xarit la na nga xam du mu sut li niveau nga xam kii mooy kan kon nag ma ne nañu góorgóorlu waat kon la sëñ Mbay Jaxate li ñuy tëje mu ne jëkkër dafay muñ ak kay muñ lekk sàmm ngorom ragal boromam te am njël jiitu ak maasam waaye jigéen dafay yaru tiñ mu neexi wax bañ a weex rafet rafet jikko man boppam na ci néegam wasalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokki taalibe yi sëriñ Abdou Khadir Dia mi nga xam ne mooy xalifa alaaji sëriñ Dia moo leen di nuyu kenn ku ne sa ak sa sant di leen ziyaare te di leen baal wax di ñaan yàlla suñu borom boole ñu baal di wax ne kenn ku ne na def ba ñëw fii yàlla na sunu borom defal la lu kaw say njort jéego yi nga dox ba indi ko fi nee na ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey nag comme waxtu wi dafa xat dañuy jël rek ci li ñu waroon wax turu Baye Ndiapp Baye Samba wax na ñu jiitu ñëpp wax nañu kon ñun dunul lunum lu mënuñu ludul jot li kàddu sëriñ bi rek ndax ñoom lañu yaakaar te ñoom ñoomoom bis bi kon ne sëriñ Abdou wax ñu jot leen ko balaa précisé jot nee na ginnaaw bu mu sante yàlla julli ci yonent bi nee na ñu ngi sant mboolem ku fi teew ne ko mi ngi mi tàmbalee ci sëriñ Maam Mor xam ne diine mi toog xam ne lii mu wax nee na buñ ci yemoon it mu doy sëkk nee ñu ko sëriñ Asmoor leeralee léegi nee na li mu wax léegi ku ko jàpp. mën naa yóbbal ren ba mën naa yóbbal ren ba déwén. ñu ngi koy ñaanal bu baax. kon Serigne Mamor xam ne diine Serigne Abdou nee ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax. gudd nee na gudd fan lool. ànd ak wér gu yaram. ak xéewal yu yaatoo yaatu. amiin nee na mi ngi sant mbooleem rakkam bu fi teew rek Serigne Abdou Khadir mu ngi leen mi ngi leen di sant. nee na jërëjëf nag muy tudd tuur. nee na mi ngi sant doomam di jëwriñam sëriñ Mouhamadou Mamoun moom sëriñ Cheikh Dia nee na yàlla ko suñu borom defal mag mu gudd fan te fekke lépp rek nee ndax nee na ñëw na ak ay taalibeem te nee na sëriñ Mouhamadou waxam bariwul nee na na ko woon jox kàddu sax mu wax doyloo na kàddu yi ñu fi wax yëpp. waaye nee na Serigne Modou Mamoun kàddu yi ñu fi wax yëpp. ñoo ngi sant na ñu sant njabootu Baye Alla Diop ak Baye Serigne Diop ak Baye Ousmane Diop. ñoom ñett ñi fi ñëw teew. ñoom ñett ñi nga xam ne ñoo fi toog ñoo fi teew. ñoo fi teewal njaboot googu gépp. ñoo fi teewal njaboot googu gépp. góor ak jigéen. góor ak jigéen. daara la ñuy nee na euh, daaw jéeg rek ñoom ko tuddee woon daaw ñu tuddee woon ko Baye Mor Fall. nee na ñu taxaw ci taxawaay bu rafet. nee na ren ñu tuddee ko El Hadj Mbacke Dieng. nee na délégation baa ngi nii teew. nee na délégation bu rëy a rëy. nee na ànd ak teraanga ju ma sëkk. ak kàddu yu rafet a rafet. nee yàlla yàlla fay leen. ne gone ndaw yi yàlla yàlla def leen ay mag. dafa ne ay wërsëg. ñëpp wërsëg seen waajur ak seen seen seen seen baay ba. ba ëpp seen maam je wërsëg ak seen baay ba. ci barkeb Serigne Touba. nee na ñu ngi nuyu jigéen ñi. di leen sant bu baax a baax. nee na ñu ngi nuyu dëkkandoo yëpp. góor ñi ak jigéen ñi. nee na njabootu baay Alaaji la ñoom. luñ ci wax rek. nee na lépp luñ ci wax rek. waxit lay doon. waxit lay doon. waaye waaye laaj. waaye njabootu Baye Alaay. njabootu Alaay Sëriñ. njabootu Alaay Sëriñ. ak njabootu Baye Mbacke. genn njaboot lañ. nee na genn njaboot la. ndax jaxasoo nañ. ndax jaxasoo nañu. mu fàttali. nee na mu fàttali. bis bii. bis bii. Baye Alaay yi. Baye Alaay yi. màggal na ko ay ateet. màggal na ko ay ati at. saa bu ko màggalaa. saa su ko màggalee. yoo xam ne bu leen ma wutal bis. da daan wax ne bu leen ma wutal bis. moom xam na bisam boobu. ndekete boobu bàyyi allah ji xamoon bisam. ba mu demee ba des ñetti fan. nee na ba mu demee ba des ñetti fan. mu wàccub liggéey. nee na mu wàccub liggéey. ñetteelu fanam. ñetteelu fanam. di ñaanam. di ñaanam. dëppoo fukki fan ak juróom. dëppoo fukki fan ak juróom ci bis kon nag xam nga ne ab taalibe bu mag. kon nee na kon xam nga ne ab taalibe bu mag. Pastef rek moo am solo. Pastef boobu moo ko may bis nee na Pastef moom mooy bàyyi alaaji bis bii. bu la nga ne bisu bàyyi alaaji la. bu la neexee nga ne bisu bàyyi alaaji la. bu la neexee nga ne bisu alaaji sëriñ la. nii la nii la nii la amee. waaye nee na nii la amee. kon lépp luñ fi jàng ci alxuraan. lépp luñ fi jàng ci alxuraan. njiital sëñ Maam Omar Xaatimul Xuraan ne. njiital sëñ Maam Omar Xaatimul Xuraan ne. junni kaamil. nee na junni kaamil ak ñaar fukk juróom-ñett. yaakaar naa ne. yaakaar na ne. Sénégal gépp xaj nañ ci. Sénégal gépp xaj nañ ci. mboolem way daw xaj nañ ci. mboolem way daw xaj nañ ci. yàlla na ko yàlla nangu. yàlla na ko yàlla nangu. te tuur ko ci ñoom. te tuur ko ci ñoom. tuur ko ci réew mi. jàmm ci réew mi. def jàmm ci réew mi. ba li ñu dëgmal ci kanam. ba li ñu dëgmal ci kanam. yàlla def ko mu sedd guy. yàlla def ko mu sedd guy. bañ weesu ko di ko nettali. bañ weesu ko di ko nettali. alxuraan ji mën na lool yàlla. alxuraan ji mën na lool yàlla na ko yàlla dogal. ñu ngi sant ñëpp. nee na ñu ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp. ah yow Ousmane nag. nee na man Ousmane nag. Samba dafa maa woo. moom mii doon kër gi. nee na wax kilifa yi fi teew yëpp. nee na ma suñu sàmm da koo woo wax ko ne ko waxal kilifa yi fi teew yëpp. ñu ñaanal Ousmane bi. nee na nan ko ñaanalal Ousmane. ndax lu muy def lu ne. ndax nee na lépp lu muy def lu ne. moom la ko defal. nee na moom la ko defal moom Samba. ñoom nag. nee na ñoom nag. ña nga fee ca Milan. ña nga fee dem naa ko ñoom ñaari yoon. nee na dem na ca ñaari yoon seeti leen. waaye boo leen boo leen fekkee. nee na boo fa fekkee. seen saal boobee. seen saal boobee. jàkka la. jàkka la. waxtu wu jot. waxtu wu jot. ñoom ñëppay jàpp. ñoom ñëppay jàpp. kenn jiital kenn. mu jiite nañ amee foofu diine sax. nee na nan amee foofu diine sax. yaakaar ko fii. nee na yaakaar naa ne amuñ foofu fii diine jooja. kon nag nekk. kon lañ nekk. yooyu éducation de base rek moo ko waral. na ne loolu yëpp éducation de rek mooy yar boo xam ne dañu koy toqatal ci xale rek moo koy wax yar boobee. nee na yar boobee. moom la parrain bi muy El Hadj Mbacke Diène yar waa kër. nee moom la Baye Mbacke Diène ñi nga xam ne ci njabootu El Hadj Ibrahima moom lañ séddu bis bi noonu la yore waa këram. thème bii suñu maam moo doon wax. nee na thème bii ñuy waxtaanee. di bis bi sëñ Maamoor doon waxtaane daa mel ni fekk fekk ci daa mel ni dafa xam ci mu tudd bis gi ndax waa kër Baye Alaaji Mbàkke ci noonu la ñuy dundee ñoom ñi itam waa kër Baye Alaaji Sow ci loolu lañ nekk nee na waa kër Baye Alaaji Sow ci loolu lañ nekk liggéey ak jaamu yàlla liggéey ak jaamu yàlla rek ah Baye Alaaji Sow nag nee na Baye Alaaji Sow nag moom Alaaji Sëriñ Alaaji dafa ne woon def ne woon sama rakk nga. sama rakk la. sama taalibe la. sama taalibe la. sama xarit la. sama xarit la. rakk ji. rakk ji. firndeel na ko. firndeel na ko. da koo bàyyile doomi boppam. da koo bàyyile doomi boppam muy soxna Amitié di sëriñ Sëriñ Tuubaa. mu mayal ko fii ci Ndakaaru. mu mayal ko fii mu sëy si fii ci Ndakaaru. may ko jarbaatam. may ko jarbaatam. muy sëñ Moustapha Dia. muy sëñ Moustapha Dia. àndoon naag sëriñ Mamour Dia. àndoon naag sëriñ Mamour Dia mi nga xam ne mooy xalifa Baye Oumar Dia. ñëwoon fii ci suba yëpp def comme ni ñu ko daan defee bi ñu jàng xàddu bi. mu bàyyile ko ko. nee na mu bàyyile ko ko. kon loolu kon rakkam la. kon nee na loolu rakkam la. te it sama taalibe nga. nee na ab taalibeem la Baye Alaaji Sow ndax nee na Baye Alaaji Sow boolewutoon ak Alaaji Sëriñ kenn nee na boolewutoon ak Alaaji Sëriñ ak kenn bu saa ñëw fii nee na bu ma saa ñëw fii day wax ne sama mbokk yi danaan sama mbokk yi bu ma ci kenn soxla bu ma ci kenn soxla fekk Alaaji Sëriñ ngi fi fekk Alaaji Sëriñ ngi fi du ma dem ngénte du ma dem ngénte du ma dem xew du ma dem xew fekk muy dem fekk muy dem waaw ah, kon nag murid bu dëggal moom kon nag murid bu dëggal ko dara jomb ko yooyu noonu la Baye Mbacke meloon. nee na noonu la Baye Mbacke meloon. Baye Mbacke nag moom man li ma ko mën a tuddee rek. nee na Baye Mbacke nag moom Serigne Abdou mu ko mën a tuddee. Kocc Barma la la tudd. nee na Kocc Barma la tudd. ay waxam yu amoon njëriñ. nee na ay waxam yu amoon njëriñ. xikam yu bëree bëree bëri. xikam yu bëree bëri. ku ko xam ku ne. te ku ko xam ku ne. wala nga jaxasoo moom. wala nga jaxasoo moom. jëriñoo ci jëriñoo nga ci moom. jëriñoo jëriñoo nga ci moom. ay wax yu bare bëri. ay wax yu bëree bëri. liggéey dong la gëmoon. te liggéey rek la gëmoon. ak ak jaamu yàlla ak jaamu yàlla ba alaaji sëriñ ba alaaji sëriñ ak alaaji seex rakkam ak alaaji seex rakkam jaxasoo moom jaxasoo moom alaaji sëriñ yëkkati sama rakk mi maam Faati ja nee na alaaji sëriñ yëkkati rakkam muy soxna maam Faati jox ko Baye Mbacke jox ko Baye Mbacke mu am ci njaboot mu am ci njaboot njaboot gi am nañu ñëw ci bis nee na am njaboot gi am nañu ñëw ci bis bi ah, Baye Cheikh ndal tam nee na Baye Cheikh ndal tam ñu tuddee ko Cheikh Jenn ñu mu jàngal ko alxuraan mu jàngal ko alxuraan yar ko yar ko ba doon demee liggéey ba doon demee liggéey bàyyi Cheikh bàyyi Cheikh bàyyi sëñ Abdou mi doon wax léegi bàyyi sëñ Abdou mi doon wax léegi yëkkati doomam yëkkati doomam muy soxna Seynabou Dia muy soxna Seynabou Dia jox ko Cheikh Diène jox ko Cheikh Diène moom njaboot gi ñu ngi ci délégation bi nee na kon njaboot gi ñooñu ñu ngi ci délégation loolu lépp kiimaan la kon loolu lépp kiimaan la ñun njabootu alaj sëñ daal nee na njabootu alaj sëñ sant nañ lool lool. sant nañ bu baax a baax. waaw ci bis bii. ci bis bii. bis bi nag. bis bi nag. ni ko sëñ Samba Waaj waxee. ni ko Baye Samba Waaj waxee léegi. bañ koy door a def. bañ koy door a def. di ko indi fii. di ko indi fii. ñu bari seen i xol amoon nañ ci ñag-ñag. ñu nañ ci ñag-ñag. waaye nag yaakaar naa ne. waaye yaakaar naa ne. bis bi bisu tey bii. bisu tey bii. ak bis yi ko jiitu. ak bis yi ko ñëpp ànd nañ ci. ñëpp ànd nañ ci. ndax am duñ waxoon. ndax nee na la sëriñ am duñ waxoon. donc ko yëgalee ba mu ne na ko yaatal. mu ne ma na ko yaatal. dafa yaatal lool la. ndax nee na moom def na ne yaatal naa ko bu baax a baax. daal ñoo ngi sant ñëpp. nee na sëriñ Abdou Khadir nee na mbokki law yi. nee na di sant mbokki law yi. ci bis ci bis bi itam. boole nga ci. boole naa ci. ñaanal ñaanal yàlla sëñ sëriñ Abdou Khadir Jili mi doon xalifa si Modou Mamoune xam ne moom moo moo moo wàcc liggéey daaw ci njabootu Serigne Modou Mamoun nekkoon xalifaam nekkoon xalifaam kon daal bis bi kon daal bis bi ku fi teew ku ne képp ku fi teew yàlla yàlla faj say aajo yàlla yàlla faj sa aajo lu fi waay bëgg daal lépp lu ko ñaan na ko ko te yàlla mën na ko yàlla mën na ko sëñ Mamoor yow nee na sëñ Mamoor nag sëñ Abdou nee na yàlla doo nga am sa fay yàlla rek am sa fay ndax lii ndax nee na lii yàgg na yàgg na te xam-xam bi te xam-xam bi rafet na lool rafet na lool ni ko sëñ As waxee ni ko sëñ As moo waxee léegi boo fi ñëwee saay soo fi ñëwee. joxe bind yu bees. joxe bind yu bees. daanañ ko jox tem sax. nee na daan la jox sax tem. waaye léegi joxatuñ ko tem. waaye at yi mujj yi moom joxatuñ la tem dañ la jógal bis bi rek. mooy ñëw mooy tànn temu boppam rek. nee na yaay tàmm sa temu bopp. waaw temu bii mu tàmbali. nee na yaakaar ne tem bii mu wax tey. mooy lépp. nee na mooy lépp. moo yor économie. moo yor économie. moo yor réew mi. moo yor réew mi. bu ndaw ñëpp. nee bu ndaw ñëpp. déggoonteem bi déggoonteem bi sëñ Maamoor wax tey fas yéene liggéey fas yéene liggéey kon réew mi dana wees fii kon réew mi dana wees fii dañuy wax ne chinois yi ne dañuy wax ne chinois yi ak japonais yi liggéey doo nga ci lañu rawee liggéey rek lañu ci lañu rawee waaye nag ñoom dañoo am discipline waaye ñoom dañoo am discipline ak ay yar ay yar ñoom ndax ñooñu ñoom. dañuy teel a tëdd lool. dañuy teel a tëdd lool. di teel yeewu lool. di teel a yeewu lool. bu sept jotee rek. bu sept heures jotee rek. ñëpp wàcc nañ. ñëpp wàcc nañ. bu neuf heures jotee. bu neuf jotee. ñëpp tëdd. ñëpp tëdd nañ. liggéey lañ gëm. nee na liggéey lañ gëm. gëm liggéey nag. nee na ku gëm liggéey nag. doo wax ne amul lu ma def. doo wax ne amul lu ma def. ndax ci àll bee. ndax ci àll bee. ñax maa ngi fa. ñax maa ngi fa. lépp nga fa. lépp nga fa. luñ mën a liggéey. luñ mën a liggéey. kon nag. kon nag. wi comme jege kon nag waxtu yu jege na. ñu ngi sant ñëpp daal. nee na ñu ngi sant daal ñëpp sant nañu. sëñ Abdou Khadir daal nee na ñu ngi sant ñu ngi ñaan. nee na ñu ñaan. yal nañ ko teewee na ngeen déwén. yal ko ay na ngeen déwén. ñu fi teew ñëpp. ñu fi teew ñëpp. kenn bañ a mën. kenn bañ a mën. Abdou Khadir nee na bu nee mbokki law bi yëpp rek. ñëpp du nañ ci. nee na ñëpp dugg nañ ci. sa bàjjen yi nekk Gosaas. nee sama bàjjen ñi nekk Gosaas. fan yee ci ginnaaw. te fan yee ci ginnaaw. jaaroon na fa. jaaroon na rek. nee daa jóge woon Kaolack rek. bu jub Gosaas. bu jub xol dem ci ñoom. xolam dem ci ñoom. ma woo la yow mi téléphone. mu woo ma téléphone. laaj leen nekk. laaj leen fu ñu dem ba fekk leen ci seen seen. mu dem ba fekk leen seen kër. kon nag dañuy ay jigéen dañuy ay jigéen bàyyi jàpp di góor bàyyi jàpp di góor waaye yéen bokk cant gi waaye yéen a bokk cant gi yéen a bokk ñaan gi yéen bokk ñaan gi dëkkandoo yi nag nee na dëkkandoo yi ñu leen di sant ñu leen di sant di leen baal wax di leen baal wax ndax mel na lii xaw na leen maanaam mu am mu seene leen ndax nee na mën naa am lii li muy baax baax mu am dëkkandoo yoo xam ne seeni na leen mën naa am ñu ngi am ànd ak wér mën naa am ñoo xam ne am ñu ak wér kon ñu ngi leen baal wax di leen baal ku fi teew ku ne rek képp fi teew rek gis nañ la gis nañ la sant nañ la sant nañ la gërëm nañ la gërëm nañ la ñu ngi lay ñaanal ñu ngi lay ñaanal xéewal yu baree bare xéewal yu baree ak wér ak wér ak wérle ak wérle barke Sëriñ Tuubaa ci barke Sëriñ Tuubaa barke Maam Cheikh Anta na jox sëñ Maam Mor mu ñaan bismillah Abdou Khadir nee na bu nee mbokki ndaw bi yëpp rek yëpp dugg nañ nee na ñëpp dugg nañ sa bàjjen yi nekk Gosaas. nee sama bàjjen ñi xam ne ñoo nekk Gosaas. fan yee ci ginnaaw. te fan yee ci ginnaaw. jaaroon na fa. jaaroon na fa. waaw jóge woon Kaolack rek. nee na daa jóge woon rek. bu jub Gosaas. bu jub Gosaas. sama xol dem ci ñoom. xolam dem ci ñoom. mu woo ma téléphone. laaj leen fu ñu nekk. laaj leen nekk. ma dem ba fekk leen ci seen seen. mu dem ba fekk leen seen kër. kon nag. dañuy ay jigéen. dañuy ay jigéen. bàyyi jàpp di góor. bàyyi jàpp di góor. waaye yéen bokk cant gi. waaye yéen a bokk cant gi. yéen a bokk ñaan gi. bokk ñaan gi. dëkkandoo yi nag. nee na dëkkandoo yi nag. ñu leen di sant. ñu ngi leen di sant. di leen baal wax. di leen baal wax. ndax mel na lii xaw na leen am maanaam mu am mu seene leen. ndax nee na mën naa am lu li muy baax baax mu am dëkkandoo yoo xam ne seeni na leen. mën naa am ñu ngi am ànd ak wér. mën naa am ñoo xam ne am ñu ak wér. kon ñu ngi baal wax di leen baal wax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ku fi teew ku ne rek képp ku fi teew rek gis nañ la gis nañ la sant nañ la sant nañ la gërëm nañ la gërëm nañ la ñu ngi lay ñaanal ñu ngi lay ñaanal xéewal yu bare bare xéewal yu bare bare ak wér ak wér ak wérle ak wérle barke Sëriñ Tuubaa ci barke Sëriñ Tuubaa barke Maam Cheikh Anta na jox sëñ Maam Mor mu ñaan bismillah foo ay toll ne amin amin amin amin amin amiin fu waay toll na ko ci fas te naan amiin amiin amiin amiin amiin amiin barke ñëpp nañ daa yow barke Sëñ Tuubaa yërmande faal doola biir ak bidaay addi yàlla sëriñ